yow bu amee ak seen xamante tey bari na ci loo xamante ni moom génn ko mu di ndijaayu Mario Mbaye fas yéene si xam waxtaan président maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi fa fay bu sama rak sama xarit maa ngi lay ziar bu wér a wér mm-hmm. di euh, bon. hésité naa ko ba sonn nag <laughs> ma ne ko hésité naa forcé naa mais nag xëy na tey la ko yàlla dogal sant yàlla bu wér. maa ngi lay masa aussi ci voyage bi ah. parce que xam naa vraiment sonal naa la waaw sonal naa la. nga yow nitu la lu yàgg rek dëgg la. dëgg la waaw ñu bu baax. dëgg la mhm. d' accord euh, prési mhm. euh, dama bàyyi nga présenté wu lan nga ci Mario Mbaye baal ma yëkkati micro bi. waaw euh, sama jarbaat la Mario man ak yaayam ñoo bokk benn baay muy sama jigéen di sama féete sama taaw moom laa ko tuddee waaw yaayam ci boppam. muy sama jigéen ba pare moom yaayam ñu tuddee ko sama yaay. Mhm. ma euh, yaayu Mario ci boppam. Mhm. sama yaay lañ ko tuddee. sama yaay lañ ko tuddee ma am taaw tuddee ko. Mhm. waaw moom sama xarit la sama lépp la. Euh, di yaay Mario. ba waaw ba pare foofu. d' accord tey naka nga gisee Mario nekk ci soirée yi. Euh, euh, euh, di di di nekk ci showbiz bi. Ah. tey par rapport ak président nga xam ne moom dafa cool. Hmm. mu mel ni Mario mooy saraxu kër gi ah. <laughs> waaw loolu nga wax ni <laughs> dëgg la mais ñun Mario ku am ay kilifa la ah. waaw muy ci côté baayam muy ci côté ay nijaayam. Hmm. parce que du def daara dara loo xam ni ki tey ay nijaayam wala ay baayam yëguñu ko. Hmm. foofu mu toll nag li tax ñu bàyyi ko ci noonu tey su fekkee ndëkk njëkkee ñun dinañ ci wax. su ko fa njëkk woon rek ñun ñu wax ci parce que Mario suñu jarbaat la si comme soirée yeeg yooyu nga may wax loolu xam nga xale yëpp xale lay def Mario su sama jarbaat la Mario doom la Mario lépp la waaye ci kaw loolu yëpp nag moo wax la dara ku am jom di mhm. liggéey nit nag su liggéey alalam ñun ñii Europe lañ man mi Europe laa ne aw ma samedi aw ma dimanche aw ma fête aw ma tabaski keroog jour tabaski bi ma demee julli ji ba ñëw bi ma ñëw tëni laa sol moom laa yendoo kon boo fekkee day xale di dund loolu su ko defee ba pare di liggéey liggéey ba pare su ñëwee Sénégal am na droit nekk ci vacance am te gis nga soirée boobu ngay wax noonu tey xam moom Mario doon dem katu soirée. Hmm. déedéet moom su dee ba xam soirée jabaram jooju ndaxte moo ko ci yóbbu. Hmm. boobu temps dafay ànd ak euh, ndaxte ak seen waa kër. Hmm. man mii rek commencement boobu takk amul dara amul dama ci doon xaw a zalu. parce que lu tax mooy di ma bokkee Mario noonu laa bokkee ndaxte. parce que ndaxte dafay euh, sama rakku jabar sama deuxième femme rakkam la. waaw hmm. ah te xam nga tey soo amee jabar fen doo bugg mu ku takk si moom. Hmm. exemple comme ñun ñuy jeunesse ñëpp si jaar. ñu naan non xale bi dafa lii wala xale bi dafa laa. Hmm. kon man dama koy fiire ba nga xam ne ni tey. pour bugguma mu def foofaa pas parce que ay xale lañ. il faut ñun mag ñi ñu jàppale leen. mooy waral euh, soire yooyu suñ ci loon dem. may jàpp ni xale lañ d' accord te nit su tollee ci benn temps bi. da koy def soo ko dépassé rek dépassé nga ko. mooy waral ñun daawuñu ko ci wax dara. Hmm. mais ci kaw loolu nag avant soirée avant muy def di dem ci soirée yooyu dafa am lu jiitu woon. Hmm. mooy dafa nekkoon ak ay waajuram maanaam nekk ak yaayam ak papaam maajoor du fanaan àll lu mu guddi guddi këram lay fanaan. Hmm. lu mu guddi guddi këram lay fanaan kon nit nag su ñëwee am vacance am. lu mu yàgg yàgg un mois la fi def wala deux mois su ko neexee kooku liggéey na def lu war seen kër def lu war ci ay mbokkam def lu war fépp kon kooku am na droit su ñëwee bëgg a bégal xol muy xale doo ko tere parce que soo ko tere rek mu def bêtise d'accord waaw loolu mooy waral loolu naan major euh, Mario yaa ma yóbbaale ci major bi sax Mario fan liggéey gis nga ñun suñu famille ku xamul rek mooy wax loolu muy def noonu di ko baate wallaahi man su ma neexoon su ma ñëwee def ko Mm-hmm. mais nag xëy na yàlla mooy def benn affaire. Mm-hmm. ñun ñu ci tolloo suñu papa teel a gaañu dañoo ñefe pour parce que ñun ñoom sens yi ñu am ñun amuñu ko woon. Mm-hmm. ñoom am nañ ñëw fekk seen bàyyi nekk liggéey ba téye affaire bi kon ñoom su ñëwee fekk affaire bi nooy loolooy waral affaire bi ñu naan non fu mu jëlee xaalis non tey exemple su ñëwoon fekk fi dara dara su lu mu liggéey day am feneen fu mu tal lu dul si ay soirée. mais su fekk lépp ok mu ñëw nag ne bàyyam puusal ne ñëw gérer kër bàyyam lu bàyyam wax moom la lu yaayam wax moom la ni koy gisoo lu yaayam wax lu baayam wax ñoom moom lañ wax kon kooku su defee loolu am na droit su ñëwee dem liggéey xaalisam def lu war seen kër def lu war a def yëpp nekkul sàmb alarde mhm. di war def lu war a def yëpp su ko neexee nag dina joxe dina maye dina batt te gis nga Mario moom ngay wax tey na ma lay expliquer benn affaire mhm. baayam a ko dàq maye mhm. baayam bi ngeen di wax moo ko dàq maye yaayam moom dafa dof ci maye kon moom nii rek la mën a mel amul leneen. Mm-hmm. amul leneen. Mm-hmm. tey yaayam ku mu gis bugg na bëgg na laa dimbali. Mm-hmm. parfois dina defal nit bëgg ne kii est wér na. kon boog loolu su ko doonee si yaayam doon ko ci baayam. mais kooku saa yi su mayewul fa ñaan foo ko jële d'accord. kooku c'est forcé. d'accord waaw loolu mën naa ci seede ndax wax dëgg yàlla bi ngay nekk fii. Hmm. di jël ay see ay see ay see bisaab bi. boobu yaakaar naa ñi ñem ñi ko ñeme woon. bariwul yàlla dénk la ko ay at. Hmm. te ba tey dëkk bi hmm. eh, lépp lu ñu fiy def rek sa loxo nga ci biir ah. Euh, damay ñëw récemment ci sujet bi ah. Euh, Mario ak Ndaxte. Euh, seen xamante. waaw seen xamante boobu dama am deuxième fois mu nekk Thiès jour bi ñu njëkk xamante laa lay wax li waral loolu. bi ma ñëwee fekk man par samedi laa fa doon awee ak dimanche ma ñëw samedi benn jour sama jabar ci boppam ne ma boobu miinul sax maa joor ne ma dafa am sa jarbaat bu may demandé ami man ko kan la mu ne Mario la ñuy wax mu ne Mario ma gi man ko accepté ko mu jël ko ñoom ñaar ñu commencé waxtaan di waxtaan ba benn jour moom mu dem seeti ko. bi mu ko seetijee il paraît fekk na fa ñooñu ñoom ndaxteeg seen waa kër yi parce que ñoom ñoo bokk kër Thiès. Mhm. ñoom ñëpp parce que ñoom parfois ñu nekk fii weekend ñu ñoom ñëpp ñu ngi Thiès et bi ñu demee foofu la xamante bi commencé relation bi comme que sama jarbaat la su ñëwee day mel ni fa la dëkk. Mhm. parce que sama deret la. effectivement bi mu ñëwee di seeti Madior même euh, kii mii lu bare bare bari dañ naan jarbaat Modou Diop la rek parce que suñu nee jarbaatam la rek kooku kon am na fi <laughs> autorisation pour dugg parce que man maa nga fa kon sama jaar su ñëwee dañ koy xajal fa la bokk waaw looloo indi seen diggante ñoom ñaar fa la xamante bi commencé après ñu commencé di dund relation waaw ñoom ñaar ñuy dund ñoom ñaar bon comme niñ koy xale yi di waxee rek ñoom ñaar ñuy dund ñoom ñaar affaire xale la mais man sama wàllu bopp a personne benn jour woo naa ci maajoor ne ko sa diggante ndaxte parce que maa ngi koy dégg parce que loolu mooy yëf kilifa soo gisee sa ñaari mbokk yoo xam ni ki tey kii sa jarbaat la kii sa rakk jabar la ñoom ñaar ñuy ànd am na foo xam su fa tollee da woote ma woo maaj ko dama bëggoon ñu wax ci est que da bëgg ndaw ci mu ne non man moom rek laa bëgg bi ma waxee noonu nag ma xam ne affaire bi sérieux na mu am benn màggal boo xam pour i waral la rek ba fu mariage bi ñëwee benn màggal bu ñëw mooy muy bàjjenu ndaxte dal ci kër ñoom maajoor Touba mhm. man juste may ma ñëw fa Touba jour boobu la ñu waxante ba bi muy ñaan sax dafa ne balaa heure bi déwén yàlla naa nekk goro ci kër gi maanaam ñu jël doomam mhm. noonu la ko yàlla tuddee ba sëy bi am bon ba sey bi am yooyu yëpp am looloo indi affaire boobu quoi. Mhm. looloo indi seen diggante ñoom ñaar. Mhm. Mhm. d'accord avant sëy bi di am. Euh, euh, ndax toogoon ngañ waxtaan ci côté warugar bi parce que dégg naa ci biir. Euh, ñu ni sëy bi avant muy am. waa ko ñoom ndaxte dañu rejeté parce que il paraît que. am na ku waxtaan ak bàjjan ba. ba saaga fa ndey bàyyi mbokki ndaxte ni leen kii bu leen ko may. sunu doom gis nga loolu avant sëy bi la. gis nga kooku di wax noonu yow li ngay wax yaa ngi ko jëlee ci internet bi gis nga kii wax noonu ñu ngi koy woowee Mame Fatou. maam Fatou moom ñu wax noonu waru moon sax tudd turam parce que bii ma ko njëkkee dégg dama ko capturé envoyé ko sama jabar ne dama bëgg léegi boobu maa ngi France wol sa yaay léegi parce que dafa ba saaga sama sœur man ko woo léegi dafa xamul lu xew moo tax muy saaga wool sa yaay léegi nga ne ko kii su ma ko déggati billaahi damay dagg bi tay tay tay damay fanaan te su ma ñëwee lu ñu gis rek xamal ne man parce que yéen jabaata la nit loo maîtriser wul waroo cee du moom la saaga du moom saaga boobu bi mu amee bi ñuy wax saaga saaga saaga luñ ko tee du saaga man mi maa la problème bi parce que maa man la woo booba si ngoro lañ nekk ñoom ñaar mhm. maa bi mu ma woowee ne ma dama doon la clamé ak sa jarwaat bi ma ne ko lan lu xew mu ne ma non parce que euh, Maguette la tudd ki ki ñuy wax ne moom la wax noonu mhm. dafa dafa amoon nag problème ndaxte Maguette di wax mu jaa wax leen wax yi ñaaw wax daal ay waxam bi mu waxee loolu benn lay du pax ma woo Mario si saa si coupé parce que man gis nga kuy def luy yoon logique rek lay demee bi ma ko woowee ma ne ko maa sa ñu nuyante ba pare man ko lan nga jotee ki ñuy wax Maguette Maguette Lo mu ne tons non cest ndaxte laa woon problème mu ciy dugg ma ne ko mag amee xamu fulla moo ko may boppam. ma ne ko maaj mu naa man ko kooku parce que ki ñuy wax noonu su ma ko toppee man kooku sama umpaañ la parce que kooku ki mu bokkal ndey ak baay mooy sama jabaru yaay bokkal sama ndey ak baay kon kooku sama umpaañ la man ko jàppal ni loo ko wax mën nga ko wax parce que moom sama magam mooy sama jabaru nijaay ak lu mu mun a doon moom sa maam la parce que man su ma nekkee sa nijaay rek sama mu bañ sa maam la ma ne ko nag loolu bu mu amati bu ne ok ma koy maa ngi jégalu man ko dama bëgg léegi boobu ngor am wol maa léegi nga xamal ko ni ko see man woo naa la waxtaan nañ nga jégalu mu jeex mu am kilifa mu woo ma waxtaan ba maa mën daal ma jékki-jékki rek gis leen ñoom ñaar ñu fotowu envoyé kërën kërën wax ci jeex na kon xam nga ni foofu kon wax ji jeex na kii di wax nii nag il n'a rien compris mais moom moom waruma sax tudd turam moom laa gën a mere ñëpp parce que moom su amoon jom du wax parce que bi papam gaañoo bi li tax may wax noonu mooy xam nga yàlla moo bëgg dëgg bi papam gaañoo mari mooy sama sœur bi dafa jël papa Ndiaye jël ndaxte jël papa ñëw fekk leen fii post jël ko mooy jëkkëru ma ñoom ñëpp ñu yóbbu leen Cees ñu jaale ci mu defal ko fa teraanga bu kon nit ak lu mën a am si biir mbokk am na loo xam ne war ngaa wax lu ne ba mu des saaga parce que saaga baaxul surtout ci biir mbokk su doon jàmbur sax waroo ko def waaw waxuma laag nag ci biir mbokk kon foofu laay waxee ne am na loo xam ne moom am na loo xam ne du loolu moom moo moom moo ko war ci li nga xam ne ki loolu la wax bi ma déggee li muy wax ni yëpp ay kàcc la li muy wax naan non man la waxoon lii ne woon naa ànduma ci ànd naa ci non moo tax comprendre wul moom il n'a rien compris moom moom gis nga jour mariage bi laa lay wax jour kooku di waxaat laa lay wax jour mariage yu ndaxte ak maajoor sama kër la fanaan kon xam nga ne xam naa ko maa ko yab jëlee kër maajoor sama kër laa leen yóbbu ñoom ñëpp ñu fanaane ñoom ñu jigoon seen côté boobu yëpp maa leen doon yóbbu te si kii laay wax comme li may wax nëbbu ma ko mais nit nit la mën a ne d'accord xam yaa ngi may laaj sànq ne moom pour euh, lu waral parce que saaga yi nga dégg mhm. moom laa lay wax dafa dafa comprendre foofu daal parce que mhm. du moom mooy wax ay saaga wala moom lañ saaga mhm. dafa am ku ñuy wax Maguette Lo Maguette Lo moomu la ndaxte ak Madior am problème bu ñu amee problème bi mu ko woowee mun na ko nax doo bàyyi sa affaire góor jigéen mu na ko mag su amee fulla moo ko may boppam. Hmm, moo ko wax. moo ko wax moo wax Mario bàyyi sa affaire góor jigéen wa waaw moo ne ko doo bàyyi sa góor jigéen parce que sooy réglé dafa am loo war a waxee. pour hmm. ñu tontu la noonu parce que wax la ak tontu. Hmm. man ñoom dañ ma woo kalaame ma ñeewoo ma kalaame kon man su may waxit damay wax logique foofu. comprendre nga mais ñuy wax naan daf ko saaga woon de non saaga amul. ñoom. ñoom laa lay wax man ci seen famille nekk fa laa am jabar teraanga bu mu fa def yëg naa ko bu muy def teraanga takkul mais dama ciy kontaan. parce que dafa dugg foo xam ne tey sama kër la man. Mhm. du ma ci daw. d'accord léegi su duggee foofu di fa def <laughs> damay wax. dama ciy kontaan. am ci fierté trop. d'accord su fa nekkoon di waaye di. su boobaa damay am defeet man. Mhm. mais comme que dugg na fa di def kooku sant yàlla rek laa koy jàppee. d'accord voilà d'accord mhm. euh, ci warugar wi ñu dem ba dégg ni sax warugar wañ fa indi daanaka dafa ndaw dañ koo xeeb euh, warugar woowu it boo ñu ci mënee ñëwal. waaw warugar boobu mun naa la cee wax lu bari sax. Mhm. parce que xeeb yëpp amul kenn ku xam ni sax naan ay xeeb ak ñàkk xeeb man benn man maa yëgoon loolu. parce que bi bi ma ko yëgee ñun bu ñu indee. dañu bëggoon indi ñu meñ ci jour bi ma mi ñuy wax turandoo ndaxte ne ma moom li mu bëggoon moo nañ bàyyi ñu jàpp bis. Mhm. ne ma nañ bàyyi ñu jàpp bis bi mu waxee pour ñu bàyyi ñu jàpp bis ma ñu ne ko ma muy turandoo ndaxte ne ko comme que yàlla def na ñu ñëpp ñu daje nañ ko def mu jeex. Mhm. ñëw nañ nañ ko def après ñu jàpp suñu datu mariage parce que boobu maajoor ñëwagul muy Mario boobu ñëwagul. bi mu waxee loolu mu ne non parce que est que mos ngeen gis takk ñaar yoon même vidéo yaa ngi sama téléphone mosu leen koo gis kon boog nañ ko bàyyi ba kii finalement ñu wax ba conclure ni léegi balaa ñuy wax dara dañuy dem Touba seeti papaam ak yaayam seeti papaam beeg yaayam may leen man suba du ma am jot pour dem léegi ñu programme songe ak euh, sama rakk bi ñuy wax Papa Ndiaye. mooy dawul coow bi ngay dégg. waaw ñuy wax Papa Ndiaye. Hmm. ak euh, sama umpaañ ndeyloo ak ndaxte bu mag ñoom ñoo ànd dem Touba pour war leen rek ñun ndaxte mii dafa am fu mu ñu tolloon. ndaxte mii ñun bañ ci woon moom dara te boobu jot amul affaire yi xat na mais lépp lu ñu teg nangu nañ ko lépp lu ñu teg nangu nañ ko man nag xam nga lan ban déception laa ci am mooy man namaa rus eh rusloo wuñ kenn de man mii lañ rusloo parce que tey man fierté la woon ñoom ñaar ñu dem ba ay doom ak ay doom ay doom di si yànd xam nga dégg biñ demee Touba ñu waxtaan ak seen papa dem kër papaam dem kër yaayam dem seen dem fu ñu war a dem yëpp biñ ñëwee papaam ne waroon ngeen koo def démb parce que lépp parce que papa mit ku baax la wax dëgg yàlla. papa ndaxte euh, ku baax la. papa ndaxte ku baax la yaay mit pare laay wax parce que li tax ma ne yaay ba léegi kenn déggu leen ci dara. kenn déggu leen ci dara te nag fi coow li tool mënoon nañ cee dugg wax ci. Mm-hmm. mais kenn déggu leen ci. Mm-hmm. ñoom bi ñëwee ñu ne waroon ngeen ko def sax avant ñun. mënoon ngeen koo def parce que fii dafa sori nii nii nii mais comme ñun dañoo def lu ñu war wan leen xale bi jaaral nañu et tout il faut kon ñun ñu def loolu mhm. looloo waraloon ñoom ñu dem bi ñu ñëwee dañ maa rendre compte wax ma li ñu fa jëlee yëpp mhm. si nañ jàpp datu mariage bi def sëy bi mhm. waaw ci nañ ko jàppee en même temps yaa ngi may laaj ne ma warugar bi ngay wax noonu dañ ko indi xëy na nag man sama xalaat ñoom dañoo jàppoon ni suñu ñëwee téléphone du ñëw chaîne or du ñëw dara du ñëw mais xaalis liggéey day ñëw ñun ñu indi chaîne or vidéo yaa ngi ni mun naa la koon léegi-léegi indi chaîne or indi téléphone iPhone 14 boobu lay boobu lay doog a génn. Mm-hmm. indi un million et quelque daal je yooyu en tout cas daal soo ko arrondir moom da mi ngi si dans les mm-hmm. waaw noonu lañ ko defee woon. biñ ko defee bi ñu xëyee turandoo ndaxte mi ngi wax ma moom woo Moodu mu ne mu ne ma ndaxte dem nelaw ba bët set man ko lu xew mu ne noonu nee nañ ko delloo moo bëggoon bëggatul man ko lu xew ba bëggoon bëggatul. Mm-hmm. mu ne ma non parce que dañoo tas yaakaaram parce que ku ne dañoo tas yaakaar mooy xeeb nañ ko. xeeb nañ dañoo tas yaakaaram parce que du lii la ñu waxante woon ñoom ñaar xaw ma lan ak lan ma ne ko ma man kaa man ko bul ma rusloo parce que man maa fa am jabar. Mhm. parce que lu ñuy wax dañ naan sa mbokk jabar yi de. waaw wala déet. dëgg la man ko ma mun naa man ko bul ma rusloo ma mun naa man ko lu la neex ak lu la naqar yëpp tegal nële fu mu ne bal bi tàkk na ba pare euh, indi nañ sëy ba pare. bàyyi rek affaire yi continuer ñëpp nekk si jàmm ñëpp kontaan nañ mu ne ma noonoo parce que lii lu mu mën wax ay waxam ay détails ma ne ko ma mu naa ah, ko man yaa ngi may rusloo parce que lii soo ci waxee damay ma jox la ndaxte ah, man maa bëggoon doon bëggatuma démb ci guddi parce que li ñuy wax ñoom ñaar ak jëkkëram hmm. te jigéen gis nga jigéen affaire bi gën a muus kese la su la neexee sa jëkkër ñoo may la cent su guddee nga woo ko wax ak moom naxanteeg moom lu mu bëgg da koy am hmm. mais soo bëggee lépp nga bëgg ko jël ci force hmm. du jàll du jàll. bi ma waxee loolu ndaxte cuba ba ngoon amul lu ma waxul. amul lu ma man leen lu ma waxul amul. pour rien que rek affaire bi mu nekkaat non maa bëggoon sinon di ngeen bëgg a gis mu tëlee gën a. arrêté te boobu warugar bi dem na. te boobu warugar bi dem na ba ci ëllëg sa man ko arrêté loolu loolu eggul foofu no parce que maa jor lii maa jor parce que li mu xalaatoon xëy na man li ma ko jàpp mooy xeeb. Mhm. dafa xeeboon mais du ñàkk bëgg wala ñàkk dara. parce que loolu amul ci affaire bi. parce que su doon ñàkk bëgg du demee noonu. loolu amu ci bon bi mu waxee loolu bon man ma woo leen di waxtaan ak ñoom waxtaan ak ñoom ba convaincre leen ci loolu ñu fàtt loolu. parce que dans leen ni ne nii su ngeen waxee wax xaalis ñu ne kon xaalis ngeen topp ci. Mhm. nit nag sooy sëy da sëy kese te yàlla kese tax. Mhm. am na ñoo xam ne 100000 lañ leen di maye fii si sëy. Mhm. am na ñoo xam ne 500000 am na ñoo xam ne lu ne. mais tey ay xaalis ak ay yooyu yor bu baax moo gën yooyu. moo loolu. parce que tey dem nañ ba nga xam ne waa ji amul lu mu bañ nag si jabaram maa tey la gën a bëgg jabaram gis nga man moo wax la benn affaire gi foofu fat naa la ko euh, bi affaire bi amee coowul seen coowul ñoom bi mu amee noonu jënd naa bi Charles de laa wàññee ko maaj daf ma saraxoo saraxoo saraxoo ba ma ne ko maaj mu ma ne ko man waxuma pour yow waxuma pour gis nga tey lii ndaxte def yow soo ko defoon damay def sens taxaw fee contre yow. Mhm. parce que dëgg rek moo ma tax di wax. lii su ma dee woon te leeralu ma ko. wallaahi su ma dee dinaa ko léegi yàlla. waaw ah. euh, hmm. bi muy wax ni. pour warugar bi dañ ko xeeb waaw. boobu da da ko xeeb bi mu wooyee Maajoor Maajoor daf na ko léegi indiwaat leen ma warugar bi. nañ ko hmm. arrêté bi mu ko waxee daf na ko loolu man maa ci nekkoon négocier. Hmm. ne jamais loolu du fi amee. mais maaj boobu parce que nit ak lu mu mën a doon kenn du ko xeebal. koo xam ne ki tey avant mu lay takk teral bu ne teral na la ko yow yaa toog nga waxal ko si bopp ñu teg ci bët lu ne defal na la ko say biir mbokk nag te nit amul lu dul say biir mbokk góor fekk la fa teral la mhm. teral bi mooy mu fekk la ci kër fekk la fa ak say morom gënoo leen ndey gënoo leen bàyyi mu ñëw defal la lu fa kenn amul mhm. defal ko am mooy loo nekk mu taxaw ci mhm. ba say mbokk maa mii tey ñuy wax ndaxte mu mag moom Sadio Mané la ko doon woowee Sadio Mané la ko doon woowee maa moom si boppam sama doom mi ngi juddu mi ngi doog am un mois deux mois un mois un an deux mois. Mhm. ndaxte bu mag bi ma woowee dafa ne euh, ma euh, Mario yi nii di jaamu ay euro laa bëgg nga compter ko sama sama Sadio Mané bi nii sama Sadio Mané bi naa mais kon lan mooy problème bi diggante un an même pas un an deux mois parce que xale bi ngi doog am avril la judd woon. Mhm. avril ah kon un an un mois. Ah. Mhm. ak léegi ba lii am fii lii lii lii lii lan mooy problème bi. d'accord dinaa ñëw ci loolu noonu ah. waaw ah. euh, bu ñu jugee ci warugar bi ñu ñëw ci mariage bi. waaw ah. euh, mariage bi ndax euh, bi loolu amee avant ngeen dem di def mariage ndax waxtaanoon ngeen ba déggoo ci warugar bi wala dañ ko forcer rek mu ñëw. non loolu waxtaan nañ ci ba mu jeex. Mm-hmm. loolu jeex na. Mm-hmm. parce que man bi ma waxee ak ñoom man li ma leen wax mooy lu ngeen def def leen ko kenn mën ngeen ko def. Mm-hmm. parce que man it ñee samay nawle lañ. waaw que ñu Mario samay nawle lañ samay rakk lañ samay jarbaat ma bëgg loolu lañ bëgg. yàlla xam mari daf may sóoraal ba man may am kersa xam nga tax loolu parce que bëggul lu ma naqar yi mhm. te man xam naa moom fan laa ko toll moom man man xam naa ko mhm. ba nga xam ni tey lépp tey lu ko ndaw si bu noonu def mun na koo muñ mhm. su doon mari rek kenn du ko dégg wallahi su xale bi nelaw du ko yee barke alxuraan d'accord yaa ngi dégg bu affaire warugar boobu nga wax noonu soo xoolee bi mariage bi amee xam nga foofu lañ defee takk bi mais mariage bi que ñoom euh, euh, kii lañ ko defee mario li tax ñu defee ko fa parce que ndaxte si boppam moo ñëw ne sama bàjjen neena xam nga li taxaw affaire bi garaaw. Mhm. mooy ndaxte bu njëkk su jugee fee day ñëw su ko bàjjen bi meree wala mu envoyé ko avocat sax day ñëw di leen ko déglu. Mhm. ne ko sama bàjjen neen deux cent du ko weesoo man deux cent mille CFA du ko weesu ak man pour lépp ci laa koy def. ci li war a def ci xew bi. bi mu defee loolu mari mi sama rek songe songe bi mu ñëwee ne ko mari mun a mun a ko loo mën defal. seet naa yaayam seet naa papam kii jaamu ci yàlla jëlal xale bi lépp lu mu laaj defal lu doyul nga laaj man ma doole. Mhm. bul am limite ci affaire bi mooy waral musoo gis takk bu ñu takk réception ñu koy defee sa kër goro. Mhm. mos nga gis. déedéet kon jeex na. keroog maa nga ca woon kon loolu su nekkul sutura. ba mu ñëw sax sa oto ko indi. Oh, jeex na bi muy ñëw seet bi bi muy ñëw man maa ko jëli sama biir oto la dugg. Mhm. man maa ko indi maa ko jëli mariage bi. bi ñu defee takk bi fee ci ëllëg sa bi ñu kii mariage kër ñoom maajoor lañ ko defee. Mhm. soo xool dañoo def tey defar ci ëllëg sa. Mhm. ba ñu soon perte dara. Mhm. muy jour mooy mooy mariage bi noonu mooy waral ñu def mariage bi foofu ñu teral ko. defar ko ba mu baax soo fekkee yow yaa ngi foon wala keneen dina gis muy solo ko simi ko solo lépp du mu kenn gorom a ko def kon gorom li mu war a def yëpp def na ko man li tax nag ma wax yàlla xam ne su doon Mario mun naa ne xale la amul benn problème mais ñaari ñu ci bool rek ñoo ma naqari muy songe sama goro la songe man maa ko may jabar mu yor ko yorin bu rafet nekk gor nekk gar bi jël ndaxte def ko ci bakkan bi songe mhm. bakkan bi laa la wax ni ndaxte la ci def songe mooy Mario non songe mooy papay Mario d'accord papay Mario et benn jour laa lay expliquer benn affaire dañoo toog ba si ak ñu dégg ñoom yaa ñuy coow pap yu dégg ne ko lan la mu ne ndaxte dama xiif na mu defar ma omelette mu defar ma omelette mu defar ma omelette mu ne ko mu ne ko non bi ñuy coow noonu mu ne ko mu defar ma omelette mu ne ko loolu rek dafa jar coow yow su la defarul yow daf laa dàq toogu omelette. Mhm. bëggul ko ne ndaxte jugal bale. man na ma ne sax au fond ñoom ñoo ko yàq. Mhm. que dañ koo bàyyi ci lu ko neex te du noonu la yisee. d'accord yaa may dégg kon. Euh, mérité wuñ lii mu toog yàq leen ko yëpp ci àdduna bi yëpp. d' accord tey su ko ñëpp bàyyee. Mhm. wallaahi ak yàlla sax dina ko gis. d' euh, nekkinu euh, kii nga xamante ni moo di euh, ndaxte ci kër gi. parce que mhm. yaa ngi koy wax toggal ma omelette. Mhm. ñu ciy xuloo. ndax kon la waroon ca sëy ba ci wàllu togg ak. ak nekkinam foofu noonu ci kër ga comme yaay seen nijaay lan nga ñu ci mën a wax. li ma ci mën a wax xam nga mooy lan ñaari jànq lañ ko wutal ci kër ga. eh waay Samba. su ma la waxee dara ay fóot ay yéreem xam nga kan moo ko doon fóot. nijaay Maajoor ay jabaram parfois xam nga Mario moom farceur la day farce. Mhm. moom kaw gi daf ko tuddee VIP xam nga rek comme kër ga loolu lañ xam happiness. Mhm. xamuñu fu ñaaral xamuñu mer xamuñu dara xamuñu loolu ñoom dañuy ñëw ñëpp naturellement la ñuy dundee. Mhm. bi mu ñëwee ay yére kii itam ay jabaru Papa Ndiaye bi ma def sama rakk yi. seen jabar yi ñoo ñëw génne yére yëpp yëpp ko fóot ko comme yaa ngi fóotee nañ ma ñëw fóotal indi la ko ba mu jekk. Eh, kuy togg duñ la ñaari jànk. Mhm. yow koy togg su ñëpp xam nañu kuy sëy da ngay teel a yow. Mhm. mais koo xam ne yow 13h ngay yow soo yeewoo 13h wàcc jël sa plateau ndékki yéeg ngam ci kaw sang ba weex tàll yéen ne Tata Marie jàngi na balaa nga ñëw 23h kooku fay toggee. teew fan ngay toggee man li ma ko waxoon laa koy waxat te wax naa leen ko maa mii trondoom toog na ma wax man ko nee naa la doomu Macky Sall muy Amadou Sall su takkoon ndaxte sax li mu am fay du ko am. Mhm. parce que ñee kenn duna ko sa bët bi suufa ci. moo tax man bi ma toogee dégg mu naan dama parce que moom soo xoolee ni mu waxee day mel ni comme quoi ku ñuy forloo ay mat ku ñuy sonal ku ñuy def lii. waaw waaw waaw parce que dégg nañ mu ni euh, benn parti rek la wax waxul la ca des. si waaye yow ma ni day kàcc. eh man li may wax nëbbatuwuma xam nga man du ma yàq ndaxte xam nga tax du ma ko yàq tey ak lépp lu mu mën a am mënul wax ba mbokk gi tas xam nga tax parce que ndaxte muy magam na maa moom ñaari doom. Mhm. te ñaari doom yooyu ma am ak moom. Mhm. ala kulli ali lépp luñ mënoon ne xew la ñee dinañ ci teew. Mhm. lépp lu mënoon a xew Mario yaayam muy Mario Diop dina ci teew. Mhm. kon tey su may wax sama akulaay taala lay wax cest à li ma ciy waxee ak ni ni may kii du dara nag xam nga lan la mooy dafa am loo xam ne mu ko dund ak ñoom. ma jaabante fa sonn ci pour sëy bi am parce que man dama musa ne heure bu sëy bi yàqoo man sama defet la. man parce que ki ñee yaakaar lañ ci am ñoo tax ñu dugg ci. ñoom ñu am ci yaakaar moo tax ñu dugg ci mais ñee lépp lu ñu waroon def ñu koy def te it dañuy sóoraale man sama jabar ji nga xam moom laa fam parce que fi ndaxte di sëy ak fi sama jabar bee dëkk matul un kilomètre waaw hmm. ah way matul hmm. te Mari Diop moomu respecté sama jabar bi kon dina ko respecté def rakam lu ko naqari hmm. cër bu mët la ko jox maree ko mag fuuf mais da koo jox cër bu ma cest pour xamal la ne mm-hmm. li tax ma lay wax loolu mm-hmm. pour xamal la ni euh, respect bi mu ko jox mm-hmm. kon sagam kooku la jox respect asama ki nga xam ne mooy jabaru euh, doomam képp ko xam nañu sa doom su amee jabar yow sa xol nga koy def da koy jël taf ko sa côté da koy jël taf ko sa côté ndaxte conseil bi ma ko jox bi ma ñëwee ci kër ma wéer moom na ko ndaxte mun naa ma ni ko ñaar laa lay wax kër gi nga ñëw du këru beru du këru commandé du këru dara fii lépp en famille lañ koy def soo bëggee la noppal sa goro bu góor parfois mu tukki dem na itali sa jëkkër dem na Italie demal France sa néegu goro loolu dafay neex si xol. Mhm. exemple laa la dafa am benn complicité boobu su amee dafay neex. Mhm. yaa muy dégg loolu man wax naa ko mu ne bu soobee yàlla bu soobee mais li muy wax ak li muy wax mooy problème bi. Mhm. amul benn problème ah. d'accord ndaxte xool amul benn problème mais man parfois man damaa toog ne est-ce que ça va carrément man man man toog man moo ko. parce que léegi nga gis ko mu kontaan léegi nga gis ko mu mer. ci biir ci nekk nam foofu ci kër gi. waaw euh, bala maa ñëw ci avortement yi. Hmm. dem nañ sax ba dégg ci coow loo xam ne amoon na. ba muy wax ni sax demoon nañ ba jël ko di ko dóor matraak. looloo ma gën a naqari nag ci wax ji. Hmm. coow euh, matraak boobu looloo ma gën a naqari parce que hmm. adduna bi yëpp Alioune Ndione sax maa ko dégg mu naan. Euh, doo góor gi teg matraque Alima moom dinañ wax parce que moom. <laughs> Cheikh naa may jëkkër man magam laa. Uh-huh. Cheikh naa may sama rakk la. Uh-huh. dinaa ko mu teg la matraque comme que da ngay wax matraque. Uh-huh. Alima moom loolu. li tax loolu dafa maa metti bërki démb laa ko dégg mu metti waat ma très boo ko déggee nag ne il que matraque loolu ñuy wax noonu. Major mi ngi si néegam si saalam di sang Major mooy Mario mooy Mario. bu mu sangoo bay génn di sol yére ji ñuy wax aji ñëw ne ko ma uyul sama yaay. mu ne ko maa ngi ñëw mu bëgg génn ndaw si ne ko doo génn mu sama yaay moom woo mu ne ko nala la bàyyi songe woo xam nga loolu mhm. ko na bàyyi songe woo yaa ngi dégg. Mhm. maaj sol yërëm di dem mu ne tëj xotti maaj di forcé mu jël paak ne sooy teg sa dang muy butti sa ndey. la ilaha illallah. maajoor moom ëpp ko doole ñaari yoon dina ñëw di dóor euh, di jël matraque di ko teg ndaxte pour la pour géej bëgg a génn. nga ni ndaxte moo jël paaka. ndaxte moo jël paaka ne soo tegee sa tànk mu butti sa ndey. boo wuyoo sa yaay. sooy génn néeg bi parce que problème bi mooy uyu ji woo nañ ko pour mu uyu ji moom sama yaay laay uyu mu ne ko na la bàyyi songe woo doo fi génn téye paaka na ko sooy teg may butti sa ndey te xott na yërëm maaj force mu tufli ko taag tufli la ko def maaj na ko nii bàyyi maaj bi mu dóor mbéj la ko dóor maaj mooy bi mu ko dóoree mbéj maaj dóor ko mbéj na ko bi ñuy wax ndax dañuy taxaw. mais kon boog moom su ñëwee ne matraque wala lii wala laa. mais loolu il faut mu wax lan la affaire bi commencé ba ñëw mais moom dafa wax rek ne lii lañ ma def lii lañ ma def waaye yow loo def. xam nga wax ji il faut mu leer. lan nga def yaw yaa mbéje yow yaa def yaa dóore yow yaay saaga ndaj. gis nga ndaxte ku ko mere rek lan nga ko mere foo tool da ngay dégg làmmeñ ak saaga. mais maa jot bëgg na ko ba nga xam ne tey lu ko ndaxte def mën na ko muñ. xam nga su nekkul woon tey Madior kenn du su nekkoon Madior ak Mario Mario rek kenn du leen dégg kenn du leen dégg parce que su ndaxte dafay biddi sax da koy nëbbal xoolal su ndaxte dafay biddi ñëpp xam nañ kenn buggul am goro mu yeewu trésor kenn bëgg ko mais gis nga day ñëw di kafa ñi ñi pour ñi ñi bañ a def attention bu naaje yeewu pour xam parce que yow du la neex sa jabar war a yeewu war a diriger su amee say jànk am nga ñaari jànk ñi lay toggal ak ñi lay booleel ñi lay baleel ak ñi lay paaseel soo amee ñaari jànk au moins ñëpp xam nañu ku sëy si kër au moins lu mu dee dee dee même 10 heures 9 heures nga yeewu. Mhm. waaye 13 heures nga yeewu soo yeewoo lay njëkk a def mooy wàcc jël sa plateau ndéeg yéeg ci kaw. jamais nga toogandoo ñi ñi lekk déedéet. Mhm. soo yee kiiyee sang ba seet romb ñi ñi taraamari jàngi na balaa nga ñëw 23 heures mais sa waaye loolu kan moo koy nangu. Mhm. ñooñu rek ñoo koy nangu. ñooñu ñoo koy nangu man mii du ma ko nangu. mais Mario moom mun na ko nangu. Mhm. soo waxee mu ne non bëgguma lii bëgguma bëggul wax dara ñu ne moom wala lii wala la Mario da ko doon daw comme ku gis yàllaam man mus man dafa man dafa dafa ma dem ba dafa ma naqari. Mario mooy yaayu Mario mooy yaayu Mario. da doon daw ndaxte. mooy waral wax ji naqari ko parce que li mu daw yëpp ndaxte yebbi ko lii li mu protégé ndaxte yëpp. mais la su euh, géyee sax mu ngi jéem kenn suy ñëw mu daw dugg ci waañ bi di tappale mel ni comme quoi moo doon togg wala moo doon def dara su déggee euh, maanaam papa ma ji di jëm pour ni mi ngi fekk or ko deful dara loolu su nekkul tappale lu mu doon mhm. lan la doon d'accord après loolu ñu dégg ci coowal avortement yi waaw waaw avortement boobu xam nga première fois bi ñuy wax xam nga dama la bëgg indi fenn benn affaire coow li coow li yëpp is xam nga ni ndaxte moo maa jot ci benn kër ñetti weer la comprendre weer ñetti weer waxuma ndaxte nekk ci kër ga ndaxte nekk na ci kër ga euh, janvier ba septembre mais septembre yi dem na si ñaari yoon euh, ñaari yoon première fois bi man maa ko jëli. bi mu hmm. dem man maa ko jëli dem na te gis nga si dem boobu sax am na beneen affaire bu am foofu. Hmm. mais bi may dem digg avant ma koy jëli noonu. parce que ndaxte damaa xëy suba teel maa woo mooy maa ndaxte bu mag. Hmm. bi ma woowee nee ma Modou ça va ñu nuyonte ba pare mu ne waaw dama bëgg nga wax ak Mario waaw jabaram ngi fii boobu ba léegi te du ko defal dara man ko lan man du ko defal dara man ko maa loolu mun nekke mu ne dara du ko defal man ko waa baax na bu subaa dinaa ñëw sa ma liggéey ba nga wàcc guddi gi ma ànd ak mooy magu ndaxte bi boobu dañuy dem euh, bi restaurant pour jëndi pain rek avant ngay bu am na benn étage bu mag bu nekk ci yoonu Kër Massar bi. Hmm. rek ma daje mu xàmmee sama oto arrêté ma bi ma taxee man ko voilà yow rek laa doon Mario li nga def nag nga ko mu mu ne comme lan laa def tons ma ne ko ndaxte bu mag daf moo woo démb ne ma euh, bu ndaxte demee ba léegi dërëm yónnee wu ko moom ma euh, kii moom Mario mu ne ko la loolu man ne ko ndaxte bu mag mu ne ma tons man preuve laa lay wax génne téléphone ne tey lan ma ne ko tey la onze mu génne xool génne ba génne fi ne ma lii lan du ndaxte. naa mën a xoolal deux cent mille deux cent mille ba mu nekk quatre cent soixante quatorze mille quatre cent soixante dix mille. Mhm. mu ne entre le cinq ak le onze envoyé nag fi quatre cent soixante dix mille bi muy wax loolu Penda mi magu ndaxte mu ngi toog maa ngi toog man ne ko mënul ne Penda waaye man kay waxuma. mais magu ndaxte. waaw bi ma waxee loolu man dama am jot de bi ma xëyaatee ci maa laa jubali yéeg ba ci kaw ne ko maa nga ni maa du def du jox dara ndaxte. mu ne dara joxu kooku ba léegi nii nii nii ma ne ko entre le 5 ba démb le 11 jox na ko 470 000. muy def loolu ndaxte naan non xoolal lii du 20 000 xam nga 30 000 ma ne ko xam nga lan la jox na ko fi 200 000 joxaat ko 200 000 joxaat ko 50 joxaat ko 20 000. mu ne noonu 200 000 yi sama sœur la ñuy maye comme que damaa feebar mu jox ma ko ma pour ma yónnee ko Touba. cent 200000 daam lu ma gis si téléphone mu neexalee ma ko 50000 xam pour fay école loolu daal la ma lima bi mu waxee ma ci boppam dafa aalu ci kawam. waaw kon loolu su nekkul tappale lu mu doon. Mhm. xam nga gis nga nit da ngay wax aqulay taala mhm. te yàlla kese tax man waxuma pour ñëw ndaxte chargé ko wala daal chargé wu mag kenn dafa neexoon maa joor def sens contraire comme ni ndaxte def tey barke Alxuraan maa le premier bu jàkkaar ak moom. Mhm. li mu def rek laa wax. d'accord lu mu deful waxuma ko. avortement bi waaw avortement boobu euh, nee na avorté ñaari yoon moom moo wax de. nee na na ñaari yoon. waaye man yaakaar naa avortement ku koy def xanaa waroo ko nëbb sa goro. ku koy def waroo ko nëbb man moom benn affaire moom xam naa ko te assuré naa loolu te mën naa ceewax wax mën naa cee doon loxo mooy que ni doom moom bëgguñu ko kuy jàng si ñoom doo am doom. parce que man bi may takk jabar conseil bi ma ki koy yar maam yi ndaxte mu mag li ma njëkk a jox mooy avant tout dama lay wax lu leer day planique man ko jabar jàmm loo ko planique loo. la soxla dara def. bu ne day planique lañ mën a wax loolu asamaan ndaxte miy jàng ba pare nekk effet ci affaire rajo yi. Mm-hmm. Mm-hmm. man en personne laa wax de waxuma ñeneen mais man heure bu ñu nee ma ndaxte mën a def na nii rek man dinaa yëngal damay yëngal sama bopp. Mm-hmm. tey nag laay doog wax lii man. mais man heure bu ma waxee parce que man xam naa lu fa xew loolu côté boobu. parce que loolu moom man maa ko dund man li ma dund laa wax ak ñoom. bi ma nee bi ma takkee ci guddi gi mun na ma day planique. bi ma waxee day planique ma ne ko planique yow jabar jaam loo ci planique ko mu ne non parce que du jàng ba fii parce que jàngalekat la xëy na jàngalekat moo tax moom yooyu mu kii ko. Mm-hmm. mais loolu du affaire bi. Mm-hmm. nit koo xam ne xamoon na yàlla dina ko may wala du la ko may. su yàlla defee nga am jëkkër doo ko bàyyi muy def mu def ko. Mm-hmm. ba pare waaye loolu moom man wax na ma ko. léegi bi nga xamee ni ki pour affaire appartement boobu mu lay wax xam nga ne dañ koo dóor ba teg ko xaw ma lan ak lan ak. c'est faux amul. moom appartement bi muy moom moo dox te dafa tombé defe naa jour corté la tombé bi mu demee mooy dox ba si yàgg rek ne car affaire bi wàcc bi ko ma jëlee xaw ma yóbbu ko hôpital bi ñëwee Mari Diop mi yaay maajoor dafa dal seen kaw ne pour lan ah yéen ngeen di dem hôpital mu ne noo bi maaj moo ñëw ne ko biiram mooy metti mu ne ko mais su biiram di metti doo ñëw wax ma ko ngi jël ko rek yóbbu hôpital noonu ci ëllëg sa mu ne ko suba lañ ma wax ma ñëw mu ne ko suba sooy dem da nga ma wax pour ñu ànd dem avant muy préparé bay dem ndekete moom ndaxte yollee ko na ba dem yoonam bi mu demee Mari Diop di woo ko ndax ana ñu ne noo génn de rek mu ne kon fa la mari taal fekk ko fa otom bi muy ñëw ba ci visile bi di wax visile bi nga laaj 40 mu ne ko permis laa yor fi muy waxee noonu rek la ndaxte génn mu insisté pour dugg ci biir ndaxte na ko non sa rang bi dafa gudd. doo mën a dugg mu a ko waa mais nañ dem mu wax ma gan lan moo xew mu ne ko non ordonnance bi rek la ñu bindal mari jëm ne ordonnance lire ne ko ordonnance ci ko affecté. ok ñu dem ñu dem ba pharmacie mari que yow comme que ko non bàyyi ma wàcc nangul ba léegi mari Diop téye ordonnance bi euh, jënd ko. mu ne ko noonu ma jox na ma xaalis moom moo wàccal boppam dem jënd benn garab ci ci ku kii yi nu mu tuddati. avorté mais xam nga nit dafa am loo xam ne mel ni kuy wax ay xale. mel ni kuy wax ay xale d' accord naa nag moom xale la de waaye man na damaa jàpp ne xale bu rax la xale plus. waaw. parce que tey yow nga avorté ànd ak sa goro nga war ko bàyyi ak lépp na ñëwal mu war la jaaxal nga lijjanti li tax lii di am li tax lii bu ko dara luñ ko lijjanti mais lu xew. mais bu jël doomu jàmbur taxal ko ci naan ay dama bëgg a dem mu naan ay baar soirée ay li hmm. parce que xam na ni soirée boobu muy wax ñëpp suñu xëy dañ koy gis te li waral soirée boobu euh, ba léegi waxuñ ci waaw fa laa bëggoon a ñëw parce que nee na bi mu ko waxee bi mu ko messagé euh, dane ko maa ngi soirée moom gis nga soirée boobu hmm. soirée boobu moo expliqué benn affaire mu ne ko loo xam Madio Mario du ko wax papam du ko wax yaayam du ko wax kenn trois heures woo na ma fii deux heures du matin na ma ci xam nga lan la ak ndaxte nii muy wane moo tax <laughs> parfois sax damay affaire damay jëlee kaw quoi. Mhm. si sama xel rek laay waxee. dafa ñëw mu woo ma téléphone ne ma maaj njëkk na ma woo kalaam ma dama daf may aaye boppam. maaj mooy. Mario Mario Mbaye. moo ni jabaram ne ma daf may aaye boppam. ma woolu ndaxte sama kër. ndaxte toog ma ne ko ndaxte Mario wax na ma lii mooy waaw day dem soirée day dem lii day dem laa man ko maaj nee na ma. heure boo buggee tey tey tey dem soirée dakk tey mu dakk tey yow nit koo xam ne balaa nga seq ak sa jëkkër il faut mu fay mu neexal la mais loolu ba façon nit la. maanaam. balaa seq ak jabaram wax ji day leer wax ji day leer balaa seq ak jabaram su ko joxul xaalis mooy loolu même su ko joxee xaalis sax parfois mooy loolu. te jabaram la. waaye bàyyi ma ndaxte kay su nekkul jabaram ku mu doon est-ce que xam nga ni tey ba tey jiini nii jabaram la. Hmm. sëy bi tasul de. sëy bi tasul de sëy bi tasul ñëw na nag di ñaan si baat ñaan bar dafa am yoon wooy jàpp ñaan bar mais sëy ba tey jabaram la. maanaam euh, ndaxte balaa ñuy séq moom. il faut ñu jox ko xam maa joor woo fi 3 heures du matin man maa jël ndaxte yóbbu ko ba kër ga bàyyi ko fa. wax ak ñoom ñoom ñaar rek lu ma leen wax def sama wàllu mag ne comme man maay kilifa papaam nekk mi ngi Italie yaay mi ngi Italie jour boobu tàgguma yaay Mario tàgguma papa Mario maa dem jëli ndaxte ak sukay ki ñuy wax sukay Diop. jël leen indi leen ba ci kër ga bi indee ba ci kër ga euh, maaj 3 heures du matin la ma woo la sol ba tàngal ba mu dag na nuuj seere suy tëdd ci jigéen te dégg naa mu naan day defar ba mu baax day def day def daal. parce que waaw dégg naa. bi mu naan day lal du moom moo lal gis nga man c'est-à-dire man dama leen doon lijjanti ba nga xam ne parce que man dama ba nga xam ne dama leen lijjanti gis nga boobu muy wax naan dama ordonné sama décoré ko ku ñuy wax abu abuloo moo ñëw décorer néeg bi maajoor def lépp décorer ko lépp néeg beeg cour beeg lépp def ci ay photos fekk moom mu génn yëgul lu xew. décor lal boobu muy wax ak décoration. noonu la demee mais du moom moo def yooyu. parce que man heure bu ma musuma gis moom ndaxte mu dugal estati maajoor te bindu ma ko message musuma gis Mario dugal estati te bindu ma ko message xam nga dama doon def loolu. Mhm. di leen parce que man dama feeroon ci seen diggante boobu. na mhm. eh, damaa see sonn seen ba man aw ma ci woon sago. parce que rien que rek pour bëgg diggante bi dem. yaa ngi dégg léegi moom bi mu euh, maa ngi tolloon ci. ci bi. nga ci avortement bi. mari fekk leen fa bi leen fa fekkee mu daje moom muy génn mu ne ko mais ci kii bi laa ne xaaral ma dem mu ne ko non dafa bëri nit rang la. nañ la ma bindal mari du ko ci doom ñu dem ba farma ci mu mari ne indi ordonnance bi ma jënd ko mu ne ko non maa jox na ubbi bunt bi ne ko noo du ma la déranger wàcc moom dem jënd ko indi benn comprimé. ah loolu mooy eh, nu ñu koy waxee raxas ko ma nu ñu koy waxee affaire yooyu seen bagage yooyu. Mhm. waaw léegi yow nga ànd ak sa goro. Mhm. yow fekkee lii naqari na la dem nga fi ngay dem ci hôpital ba génn nga su taxee nga ne ko dañ toog ñu xool parce que boobu day fekk yow nga bëgg doom yow mhm. ñu xam lan moo waral lii. waaye yow chaque jour xooloo loolu yëpp yaa ngi xool chaque jour li tax ñu mere maanaam. parce que man man sama xalaat après finalement li ma comprendre mooy xëy lii la bëggoon pour parce que Marie moom it affaire da ko bett ba nga xam ne si moom li ma wax mooy que ni woon nii lay demee. Marie Mario. non Marie mooy yaayu Mario. Mm-hmm. moom xalaatul woon loolu parce que sinon xam nga su génnee rek ne la ginnaaw da ko nañ toog xaar. Mm-hmm. tant médecin bi génn médecin moom dina wax lu leer médecin it soo ñëwee si ñoom duñ la wax parce que dañ naan la secret médecine xaw ma yu demee noonu. Mm-hmm. yooyu lañ lay indi loolu. moo tax munoo xam moo tax day compliqué pour lijjanti affaire bi. Mhm. mais nag moom it bu mu yàq der naan ay dafa yàq bii dafa teg mu naan ko lii mu naan ko la c'est c'est pas vrai amul. Mhm. loolu muy wax noonu yëpp amul. Mhm. Mario ñëpp xam nañu si bakkan bii la teg ndaxte kafu ci réew ci. li ko naqari yëpp ba tey jii may waxee ak li ko ndaw si sipi lépp moom su ma ko tàggoon tey tey tey lii duma ko def. Mm-hmm. Mario si boppam. waaw parce que. tey parce que bi àll bi affaire bi amee man ak yow jàpp nañ dat. ba nga war a ñëw ba nga war a ñëw. Charles de Gaulle la ma wàññee ko. Charles de Gaulle baa ngi nii mun naa la ko woon léegi léegi léegi nga kii ko léegi ci affaire bi. Mm-hmm. sama billet mi ngi nii billet bi ma jëndoon pour war a ñibbi si dama na ñëw mardi mercredi jeudi ma ñibbi si waat parce que mardi laa waxoon laay ñëw ci guddi. Mm-hmm. mercredi ma def bi. jeudi maa ngi France encore. parce que li ma doon liggéey parewul maa amul lu mu waxul amul lu mu ma ñaanul amul lu mu ma saraxul pour bu ma wax parce que moom fan la ko deg mooy ndaxte sama jabar bi ma xam bis boo demee nga wax da ngay wàññeeku ñu la dee na. donc ça veut suma la déggee am na lu bari loo xam ni mu ngi ci biir te ñu ko wax ci kaw. déedéet li fi ne eh moom moo la gën a xam bêtise bu mu fa def moom moo la gën a xam. ndaxte waaye yooyu eh, ma ni nee naa la moom na dem amul problème su leen neexee sax seen sëy bu mu amaat mais. wallahi dina ko tëgg parce que lii dafay loo xam ne tey dafa am benn cër bu ñu ko fa joxoon lii dafa am loo xam ne am fu ko tegoon ci kaw lii dafa am respect bu ñu ko joxoon ci kër mais soo la joxee respect nag xam nga fekkee yow man du ma ne baadoola parce que su sax da may dépassé mais kon yow da ngay dem ba xam nga lu ñaan euh, baadoola am mooy affaire bi mm-hmm. mooy da ngay ni yow la te fekk dañuy def parce que ñoom loolu lañ xam lu baax mm-hmm. mais su nit xamee lu baax di la wax maanaam di sonn mel ni ku la ragal yow nga foog yaa tey non du yow mooy li ma ko waxoon bi ñuy mujjee régler foofu man ko ndaxte su doon sa jëmm dong du man may teg sama tànk fii naan maa ngi ñëw di régler pour nga dem sa kër ci kër dama xam ni sama jarbaat bi moo la bëgg ba ma Mario la àndal mhm. mooy dernier bi mu fay mujj euh, booba avant jour boobu dañoo dem papa Mario ak man ak sama rakk Mousse ak euh, benn rakk mbay peex ak euh, ñeneen daal ba ñu ay juróom ak rama sama doon doom bàjjan mhm. bu ñu demee ñu waxtaan ak maa maanaam non Mario waaw du ma faale duma lii duma laa te fekk loolu yëpp ndaw see ma mën parce que dafa def benn système bu garaaw bu ñu ñu xamul dafa jaxase Mario Diop ak ma. Mario Diop mooy yaayu. mooy yaayu Madior da leen jaxase ba ñoom ñaar du di te ma dëgg rek moo fi ne xoolal ci lépp lépp lépp jeex xam nga mooy genre yu mel leen xap yi reetaan xaxataay def lii def naa mais jaxase na leen ba ku ci ne. dangay ngay xiiru sa moroom mu jógee ci foofu jaxase ma ak ak ak Mario ma mooy ndaxte. xam nga pour am li mu bëgg. mais mooy bàjjen ba. mooy bàjjen bi kay yar moom moo leen jaxase. parce que li tax parce que yow soo ñëwee ne maa ne ko ma euh, Mario nii dem ci Mario ne ko sama bàjjen su la jàppee lii. parce que mooy bi muy wax xam bi muy naan bi daf ma yónnee foofu bëgg naa fa ñëw. Hmm. mooy naan bi ma averté mu yónni kenn ko yóbbu ko. Hmm. boobu moo leen jaxase ba kay mënu fa teg tànkam. da leen jaxase ba maa ne ko bis bu ñëwee fii dina jot toroxalam moom Mario ci boppam. Mhm. loolu woo na ma expliqué ba ma ne ma danaa jël jour ma dem ci loolu ma xam lan parce que il faut nga toj yax bi. pour weer leen ñoom ñëpp ñu toog nga xam lan mooy indi jaxase bi. Mhm. ndekete moom moo leen jaxase. Mario nag pour bañ coow ne ko woo si ne ko ko këram. Mhm. moom mu ne non dama awate mu yónnee ma yónnee yóbbuwu ma sax mais yow nan la leen yóbbu nga jaxase ko sa turandoo ba nga xam ne sa turandoo nee na su fa tegee tànkam dina ko toroxal. nga bëgg moom mu dem fa pour lan. Mhm. dafa dem. le fait que mu accusé euh, waa ah, goro yi goro yi que ni dañ ko seetaan seen doom lañ doon plaideel jàppale wuñ ko. loolu fayul naar bi xoromam looloo naqari sama sœur bi gis nga su fayul naar bi xoromam te dinaa la wax benn affaire bu ndaw dinaa la woon message bu mu bind moom ne ñoom mérité wuñ ko léegi léegi su la neexee léegi buñ ko ko ne raaj ñëpp lii ko. ndaxte moo bind message. mani li muy wax ni Mario ak goro bi moom Marie yëpp mérité lii mu leen di teg lii mu leen def ni ko. ak fi muy toggee lii muy togg lii lii lu mu togg la gis nga lii dama lay wax benn affaire bu ndaw àdduna la jëndee sëyam bi àdduna lu ko jëndee te dina xam ni sëy du ay caaxaan mm-hmm. moom su demee ba ne ñoom taxawuñ ko looloo naqari Mari Diop moo tax Mari Diop man bi mu njëkkee léegi dama dal ci kawam ne ko waroon génn waroo wax yow yàlla kese moo tax gis nga lii yàlla kese soo ko bàyyi yàlla faj parce que yàlla xamoon na sa yéene si ndaw si ak liñ ci perte yëpp ñi ci perte yëpp mu ëlbati wax la lii xëy na wax na ko mais xëy na am na lu mu bëgg wala dara je sais pas mais na xam ne moom ak di ma xamee jëkkëram xaa xamoon su ñëwoon ne jëkkëram dama bëggoon ñu teg benn affaire dinaa wax lii ak lii ak lii lii pour jaay sama lii man xam naa Mario jaral na ko kay sacrifié ko pour mu doxal affaire am. Mhm. eh gis nga Mario yow soo ko gisee looy njëkk gis du ay bëñam. naturellement lay dundee même soirée bu ñu fa dajee. arxuraan laa la wax ni. Mhm. amul mbindeef bu mus a taxaw ne mus naa ko gis mu mer wala lii wala lee. foo gis ay bëñam yaayam teg noonu la mel. loolu yàlla moo koy def ci ay nit. yombul eh nit ni nga bëgg a ree doo mën a ree. ay eh, eh, yooyu yombul de du ñëpp ko mën a am kon boog moom suy waxee defee lu muy def wala mu wax lu muy wax ba pare ëlbatikuwaat ñëw indi affaire yooyu def lu ko neex fan la ko teg. ci àdduna la ko teg. àdduna kot la teg teg ko feneen. loolu moom mooy affaire bi. comme mooy mbirum jaxase bi ma lay wax léegi léegi nii ah. cest à foofu mooy bi mu sëyee ba am deux trois jours yooyu. mooy boobu télé yi rek comme bi mu ñëwee. di wax kërën kërën. booba bi mu waxee man am personne man man. bi ma dégloo affaire bi sax man sama xel dem na ci loolu que bàjjen bi wax parce que bi mu ne boobu dafa gërëm yaayam gërëm baayam. mais tuddul bàjjen bi waaw ndaxte boobu. Mhm. yi que bàjjen bi envoyé di saaga ndeyam ne ko nag yaa ngi foofu waaye ni nga fa tas bi mu ko waxee loolu moom si boppam ndaxte dafa jëlaat audio yi ñëw ba ci ñoom Marie Diop ñëw taaj leen di leen dégloo affaire yi. bàjjen bee ko wax ni ko foofu yaa ngi fa waaye di fa tas. Oh, loolu laa lay wax nii. ndax gërëm moo ma. waaw foofu xam nga tax ma lay indil foofu. mooy li ma la ma bëggoon nii dafa jaxase euh, Marie ak bàjjenu ak ak ak ay tóndóom muy ndaxte bu mag li tax loolu yëpp nag am moom daal la bëgg expliquer cest à xam nga dama la bugg a wax rek xale bi dafa kiiwul la nu mu tudd euh, am nañu benn mot bu ñu koy mën a waxe dafa dafa bon mën naa ko tuddee benn mais beneen affaire bi mooy dafa c'est-à-dire mën na def dara léegi génn ci léegi. dafa faux waa dafa faux quoi. Mhm. lim lay wan mën na rey nit a rey ñorul moom. mën na ree te ree ñorul. Mhm. te gis nga tey dafa am euh, li nit ñi nit ñi dafa mel ni amuñu bopp. gis nga euh, maa ngi dégg bi commencement affaire bi ñëpp di ci wax gis nga ñiy wax ñëpp maay lii maa jo maay lii ndaxte maay xamuñu dara. Mhm. parce que am na loo xam ne famille ci biir lañ koy lijjantee li ñu doon dox yëpp xamuñu am na sax ñu naan ah, xanaa waay kii famille yi doxuñ si. eh ku dul nit boo mun a xalaat dem na kër ndaxte nit boo mun a xalaat. benn jour dama toog ndaxte bu mag ni nii man de damaa xamul sax la ñuy topp ci ne gàtt mënu ko muy nan la ñuy topp ci ndaxte bu bu ndaw. <laughs> parce wax loolu. waaw parce que xam nga li tax ma lay wax loolu yëpp tax ma lay indi yooyu mhm. mooy man na dama fa bokk. man su ma ñëwee <laughs> kenn du ma ne génnal parce que si si seen famille mhm. xamal la ni moom li muy wane ak li muy def ça fait mhm. parce que nit it da ngay mel benn kër ñu xam benn couleur mais tey nga ni nii suba nga ni ndale ndaxte. Euh, commence exemple euh, mooy bi mu naan mooy mooy euh, comme ñun bu ñu fay mujj. Mhm. muy avant muy génne affaire am bii xam man maa dem le premier avril laa dem Paris. Mhm. avant le premier avril def naa une semaine wala yooyu. Mhm. man dem naa parce que ma doon weer bu jot lu mu gàtt gàtt dinaa fa dem trois ou quatre fois. man heure bu ma wàccee dama fa doon def sama yoon. rien que pour lijjanti pour wax benn jour maa bu mag moo toog ne xanaa su dul dara ndax dañ nga rut si mot jóg coono bi mu ciy daj. mu gi nag ma ne man kenn du ma ñàkkal fayda. mais lan moo am. li tax muy am man en personne ma laaj la ko ma wax la ko tey man bi ma xoolee ndaxte dama ne ko wéeroo man man man laa wax de xam tax ma ne ko wéerul parce que ndaxte ba léegi doo xam problème lan la lu dul lim ma def xam nga affaire dóor ak mat rek ndaxte nga koy doog a wax nii. is xam nga loolu. Mhm. wallaahi barki alxuraan dem nañ fa bu ñëw nit musul ubbi affaire door ak affaire lii ndaxte indi dóor moom moo génn affaire dóor bi man. bi ma ko déggee ma tiit affaire dóor yi ma lay wax. xam nga avant may dem nii dama fa dem man ak songe maa ngi doon wax foofu pare gu ma foofu muy songe presque ak quatre personnes. Mm-hmm. buñ demee maanaam lii la ma Mario def lee la ma wax lii la ma def lii la ma wax ma déglu ko ñu déglu ba pare songe na ko comme que euh, Mario sa Mario la sa doom la yaa ko wax man ma ne ko sa Sadio Mané la yaa ko wax. léegi euh, Modou na ma bëggoon nga ànd ak sa jarbaar ngeen ñëw mu ma àq. xam nga ko bëgg loolu est que bëggul jàmm. Mm-hmm. def ko dara nag yàlla rek moo bëgg dëgg amul dara lu mu ko def nit fekkee teraanga la lu mu war a séq ak ma séq na ko ak moom. dama lay wax lu leer li may wax lu wér ni mel ni midi laa lay wax lépp li nga xam ne war na ko diggantee moom ak ma mëtal na ko mëtal na ko de biñ ñëwee euh, Madior wax loolu kii euh, papa yi Mario wax loolu ñu ñibbi bi ñibbee Mario woo ma ne ma tos ka la dem ma jox ko jour jour boobu bu ñu waree dem mu tombee benn sama rakk jabar am doom Abbas Ndaw ah bi mu amee doom a Abbas Ndaw maa woo ma téléphone ne ma est-ce doo woo Mario nga ne ko léegi ñu rapporter affaire bi. Mm-hmm. ma ne ko non parce que jot amul maa léegi foo ne mu ne maa ngi hôpital ma ko léegi maa ngi ñëw jël la hôpital sa oto da nga koy bàyyi foofu parce que am na ñeneen ñu war a ñibbi nga jox leen ko ma jugee sama atelier dem ba Abass Ndao jël ma man de man ak Penda sama jabar bi ak ma maaj woo ma ne ma tons départ na ama ma yegg mu waat ma ne ma euh, maa ci buntu kër gi man ko bul man ko wóol ndaxte nga wax ak moom nga xamal ko ni maajoor mi ngi suuf mi ngi yéeg su yéegee au moins mu tegal ko ay boisson ay ay ndox parce que xam naa ne xamul dara loo ko waxul xam ko bi waxee loolu maa woo ko ne bon euh, Mario mi ngi doon di yéeg su yéegee waaw utal leen boisson ak ndox yooyu nga tegal leen ko mu ne maa man amu lu ma leen jënalee de amu dërëm bu ma leen jënalee li yéeg lii. ndaxte ma eh, ko yow sooy ñëw ko ngay ma ne ko maa mu naa man ko waxal xale bi dëgg su dee benn fan kii teral na ko te jëkkëram la ba tey nit da xam teraanga. Mm-hmm. am na yoo xam soo ko defee ñu ne baadoo la nga yow ay nit koo xamul sax xanaa su ñëwee ne salaamaaleykum nga yëg ndox na ko am mm-hmm. mais man xam naa ni loolu du ak tam maanaam jàngul loolu xamu ko. moo tax ma insisté foofu ma ne ko maa mu ne ma ne ko euh, euh, woo ko nga ni ko na def lii kenn du ko jinal moom moo koy jënal boppam. bu ñëwee ba ci bunt bi maa woo ko xool bi mu woowee sama xoolee daal daf ko naa nga am jëlal xaalis bi nga wàcc nga dem jënd boisson bi. bi mu ko waxee ñu wàcc oto bi bi ma ñëwee pend la nuyu ak yi man daf parce que man li may wax nëbbu ma ko maa ngi wax ak maa mere na ci nii la ma moom ndaxte tey. waaw yëpp eh, faalewu ma faalewu ma amul problème man loolu naqariwu de ñu yéeg bu ñu yéegee ñu toog waxtaan ñëpp toog ñu toog wax lii wax lu baax wax lii wax lu baax mu nekk fi di cëppi cëppi wax lu ko neex kërën kërën ma ni ko ma mu ne ma ni ko kii laa la indil parce que papa mu ne si doo yaayam nga eh, gorom nga maamam nga léppam nga mhm. dama ñëw. comme ne nga dalaa tooñ parce que li ma def li ma def rek te doo wax la def waaw mu baalu si laax ma maaj mu naa mën ko jugal jox sa kii baalu ko wax mu baal ko wax bañ ko tante foofu xanaa kon loolu wax ji jeex na mm-hmm. kooku ci kilifa lay dox mm-hmm. te fekk ñun avant jour boobu mooy bi ñu fay mujj ba papam ba ma ànd ak papam papam nee na ni kii papam si boppam toog fekk ñun dañoo ñëw toog papay maajoor papay maajoor toog nañ une heure de temps ñu ngi fekk euh, ndaxte xaw ma di live la ñoo xam di jaay seen affaire ci internet yi bi ñëwee nuyu leen ba dugg ñu ngi toog salle toog nañ fa une heure ndaxte toog fi mu toog ñu bu ñëwee dugg toog dañu dugg ñu ñëpp toog sama yor fekk ñoom ñëpp ñoo toogoon dafa jug ñëw nuyu leen nuyu songe ñun ñëpp ñu toog ñu toog une heure de temps wax a wax ba maanaam xaaral ma woo ndaxte pour làmmiñu borom ci euh, xama xama lan la. ko voilà très bien. bi mu ko wooyee mu ñëw ndaxte bi mu ñëwee ab suufees boo xam ne ki la la sol man damaa rus dafa dugg ñëpp ne selaw ma maa mu ne ah. man ko dimbali xale bi tanga nga yar ko maa lii respect la su dee benn fan songa mi teral na ko su ko neexee bañ a respecté waaye man jëkkëru magam laa man su ma ñëwee dugg ci biir kër gi ñëw fekk dafa nuyu la xanaa su ma ñëw war maa ñëw nuyu waxuma la ak man papay jëkkëram ñëw toog une heure woo mu doog dugg ak colinam gu bon gi maa waxal xale bi dëgg te dimbali ko néeg bi serew kenn waxul parce que xam nañ dëgg ku ko gis dafa am loo xam ni lu ne fàng la kenn du ko jeex kon boog dafa am loo xam ni yàlla moo bëgg dëgg nit da ngay wax dëgg ndaxte nag dara dalu ko lu ñàkk kilifa amul kilifa ndaxte dara dalu ko nag man sama gis-gis mooy dara dalu ko ñàkk kilifa walaay kilifa am complexe moom parce que tey ndaxte kum noon sa kum noon koo ko doo lii muy def doo ko def loo ndaxte ku ko juróon lii muy def nii doon nangu mu def ko kum doon sa doom doo ko nangu mm-hmm. billaahi kum doon sa doom barke arxuraan doo ko defal parce que ku ci ne ñëpp xam nañ ni sëyu xale mag ñee siy jàpp mm-hmm. yow xale dina bëgg a def lii ngeen ko defal lii parce que xale dafa am benn période boobu soo ci tolloo xamoo lu lay gaañ xamoo lu lay arrange xamoo lu lay kii loolu neex ngay xam. Mhm. mais da am ay kilifa yi nekk ci el bi soo dëng yoon ñu ne la kaay lii mooy dëgg. Mhm. loolu la ñuy téye xale. Mhm. man kaawu ndaxte tax na man sama doom moom xanaa ma dee ñu joxe keneen mu yar waaye tàng maa ngi dund sama doom kenn du ma ko yaral. parce que tey dëgg rek la yàlla bëgg mais doo yar sa doom mu nekk say nekk xale bu ndaw xamul lu mu bëgg xamul lu mu bañ xamul fu muy taxaw nga bàyyi ko mu nekk ci loo xam ne ay internet nekk ci ay affaire nekk ci ay ay ay ay jaay ay affaire adduna ak yu kenn xamul te say nekk fi. Mm-hmm. lii nag mu am fii du ma ne du ko amaat fenn waaye su amee alal ji waxuma alal de foofu waxuma ko mais téye bi ñu ko téye arxuraan laa la gënal dootul am ci addunaam. Mm-hmm. su dof dof la ba ñàkk sëy bi parce que sëy bi moom ñàkk gu ko parce que sëy bi tasul kooku moom damay wax mu clair et net sëy tasul tey tasul ëllëg parce que mënoo ñëw sëy si nit ñetti weer nga sëy ak sa foofu nekk fa janvier ba septembre. te janvier ak septembre tas nga fa ñaari yoon te boo dem tas bu ne ni fa def weer wala ñaari weer wala ñetti weer kon kooku sëy moom tasul foofu ci kër ga. Mhm. ñëw taxaw ci internet bi yow kañ soo bëggee benn affaire nga ni da ngaa bëgg liberté d'accord naa mën nga doxi sa liberté toogal ne leen da ngeen maa teg sëy te attanu ma sëy nga dem sa yoon waaye bul yàq ay gor ñi ay gor lañ lu ñu war a def def nañ ko wallahi lu ñu war a def def nañ ko ñii defal nañ ko lépp ñii defar nañ ko lépp yëkkati nañ ko fépp. Mary bi nga xam ne dafa bëgg lu rafet am na benn xaw lan moo jotoon même doomu bàjji na moom bi mu ñëwee bi muy dem dafa yëgal xaw ma ay jaaroor xaw ay lan ne soo demee nga jox am kii sa jaam la pour lépp lu mën rafetal pour wax la rek mi koy def Mary Diop mooy yaayu Mario mais est-ce que kooku méritoon na lii nga ko sosal ci àdduna bi yëpp mhm. ce que kooku war nga wax ba xolam jeex est-ce que loolu yoon la mhm. dafa am loo xam ne logique la mhm. ah? Mhm. dafa am loo xam ni mooy loolu ko mhm. d' accord donc man su ma la déggee ci commencement ba fin. Mhm. Euh, ndax jàppoon ni tamit euh, ndaxte dañ ko manipuler comme li nga wax xale la euh, dafa am ñu ne ci ginnaawam bañ sëy bi. loolu moom am na ci ndaxte pour man sama xalaat ñi koy tas doo ñoo ëpp ñu koy jàppale. ñi koy tasoo moo ëpp ñu koy jàppale parce que li tax ma wax la loolu mooy. benn jour dañoo toog ñu réglé mooy bi ma naan dañoo xam ne papa euh, Mario. boobu wax nañ ñun xam nga bi ñuy ñëwaat lan lañ doon wax pour jàpp jour bi mu war a delluwaatee këram ndeketee booba mi ngi togg lii muy togg nii xaw ma affaire euh, nu mu tudd affaire kii bi mooy kilibam bii muy def. Mm-hmm. misigam bi ndekete booba moom mi ngi programmé li mu programme xamu ni lépp jaayu ko dara loolu àdduna la jaayee affaire bi yow bëgg ngaa def sa promotion bëgg ngaa def sa sa say affaire caaxaan yi parce que li tax ma tuddee ko affaire caaxaan mooy da nekk ci sëy yow jëkkër ji lii ngay wax nii tey di ko def yëpp sa jëkkër pare woon na li yëpp préparé woon na ko hmm. eh léppam na ko ba pare léppam yëfu boppam laa lay wax de lii ma lay wax nii yëpp boppam may la jëkkër ji amul addunaam yëpp moom ndaw si la coow li coow li nii yëpp xam nga maa ngi boo xam ne taxaw ma sax foofu taxaw mooy bi ma naan euh, affaire u génn bi ak yu demee noonu xam lay wax ne la. mu génn guddee moom mi moo ko ci dugal muy ndaw si. parce que boobu ay groupe lay àndal mu téye leen ñoom ñëpp gère may la tey maaj su ñëwee sama ñu dem dibitari suñuy añ day commandé dara ne lii pour kii la euh, nu mu am na nu mu koy am na benn tour bu mu koy defee. Hmm. laxas pour yóbbaale waaw kuy def loolu ni nga bàyyi sa jëga sa jabar si dara. Hmm. naan ay da dem bay ñàkk crédit. waaw. loolu la wax noonu. waaw man dégg naa mu ne ba ñàkk crédit. Magal dama doon dajee dañu doon gis nii may sàmbala fekk boobu béguma waaye yow moom mosul bég moom nit koo xam ne day loo ko gën a defal muy gën a man wax naa ko eh Kisia liberté boobu xëy na liberté nag bi mu tàmmoon c'est vrai loolu xëy na loolu bloqué na ko parce que man dama ko xam loolu mun naa ne bloqué na ko mooy liberté boobu maanaam fu ñu la fekk nga nekk ci non sa ñun ay kër lañ yor ñun dafa lu ñuy dundee mooy kër gi règlement la mooy que da ngay tëdd heure yow dem liggéeyi def li ngay def nekk ci li ngay ne fekkee jigéen nga nekk ci li nga war a ne ku ne nekk ci li war a ne waaye liberté boobu pour mën a dem def sa clip pour mën a dem waxi pour mën a dem say xarit pour mën a génn ba 23h non en tant que jigéen bu am jëkkër kenn xamu ko dañuy dem ba dootuñu xam yow si lan nga nekk. moom ban ban man man li may gën a métti mooy moom ban coono la am ban coono la dund boo xam ni ki tey mooy waral mu ne dafa am lu fa daj yow oto ngay oto buñ kii moom ngay jàngee. ah oto bi climatisé ngay jàngi jee yow sa néeg sa salon climatisé la non nañu wax dëgg yow toggoo yakkoo bale wu photo fabeeroo mais lan mooy problème bi ba pare toog sosol góor yoo xam ne ki tey am na loo xam su ko yàlla bàyyi sax yàlla wallahi su ko bàyyi sax yàlla du ko seetaan mm-hmm. waaw d' accord léegi euh, su ma ñëwee ci clip bi. ñu mm-hmm. dégg ci ay kàddu yoo xamante ne nii. Mm-hmm. Euh, ñu bari ni est-ce dund ci kër gi la wax xaw ma nit ku ñuy tël euh, te deewagoo Euh, par rapport ak loolu yow soo ma ko doon analyser ndax jàppoo ni lam dund ci kër gi la doon wax ci clip bi. bon waaw xam nga loolu man mii jëkkër woon na ma ci bi ma ci wooyee xam nga mooy li ma lay wax sànq rek ne la Pape lu neex ndaxte neex na ko bi mu benn bi mu toogee di ci wax dafa maaj pourtant garaawul de ay yi muy demee mu ne ko papa man sama kilifa mais moom maay kilifaam même bu fekkee dafa bëgg dara mun na naxanteeg man ba ma nangu mais du ko forcer maa jël oto bi. def si tracker yooyu nga xam ni fu bi ne na nga koy xam. Mhm. bi mu ko toppee ba topp ko de moom day fréquenté ay giwuñ. moom. moom ndaxte. Mhm. mu wooma téléphone. bi ma woowee ma ne ko maa ngi dégg seen coow yooyu mais li tax maaj mu ne non parce que tons mu ko topp dafa fréquenté day ànd ak ay giwuñ ma ne ko ay giwuñ ba moom du ci loolu. ma ko ba du loolu mu ne non. moom maaj toujours da koy da koy da koy protéger mu ne non moom du ci loolu mais ànd bu ñu ànd ak ñoom moo ma neexul. moom màcc moom du ma la nëbb tout le temps nee naa la da koy défendre da koy protéger. ndaw si xam na loolu. donc loolu la waraloon moo tëj bi. moo waral moo tëj bi nit nag da ngaa ñëw fekk ay xale te kër gi mu nekk ay xale yu ndaw fa ne dafa am loo xam ne luñ fa loon nangu kenn du ko nangu foofu. Mhm. jigéen daa am heure waaye fu la neex fanaani fu la neex yenn loolu du fa am. nga nekk ci néegu sëy. waaw tax nekk ci sa déegu sëy loolu du am jox la oto bàyyi la ci sa liberté ngay def lu la neex loolu yëpp fekkee moom dafa bëgg jël wax ji dëpp ko naan noo euh, day doxi day dem soirée soirée boobu yëpp maaj bi ma la ma ne su la neexee mu toog bis bu ma nee li may def bàyyi na ko man tey tey tey dootuma gis soirée te xam nga lan mooy lim may def. mooy di ko aaye boppam. maaj wax na ma ko du benn Mario wax na ma ko du ñaar wax na ma ko du ñett yoo xam ne problème yooyu dañ ciy am te yow ñëpp xam nañ ñi yow soo tëddee guddi nga nekk ak sa jabar ba toog yii ñaar kot ngeen wét nga téye ko ne ko tey di tëj sa kii mais saa yi tamit sa jabar lew mm-hmm. ah mais nañu waxante dëgg kooku fan la xool di neexee. Mm-hmm. munul neex mais ci biir loolu yëpp jëkkër ji mun na ko supporter. ci coow du bugg ko yëg ndaxte nga ngay dégg ay saaga gis nga tey gis nga loolu mu la wanoon ci. affaire que ñu bari ñu loolu lay dund gis nga appartement bi ñu ko tabaxal. xam nga lu waraloon aju mariage bi ñu takkee dañoo takk aj ko ba janvier mais bu ñu ko takkee pour rien que parce que ci kaw ko lañ leen tabaxal seen appartement seen lépp lu bees lépp dañ ko commandé suñu gis nga décoration yi ñu jëndoon ndaxte toj na lépp gis nga loolu mënoon tojee ci affaire am boobu toj na lépp. appartement bi lépp la toj dara desu fa lépp la toj moom xeex tubaab la def lépp la toj mais pour lan ba pare bëgg ñi ñu naan dañ la yow yow kay yaay yow ñi moom moo agressif moom kay li muy def nii moom moo koy def moom sax dafa dëpp affaire bi moom li mu ne loolu la ko waa ji def moom moo koy def waa waa ji tey ndaxte su ko gajj woon xocc ko mun na koo muñ yàlla xam ne doo gis si moom mm-hmm. boo wóor na rasulaa doo gis man parfois du ma la nëbb damay dem ba man na ma koy mere xam nga lu ma koy mere mooy que ni yow nga jël ki teg ko fii xëy na nag yàlla mooy xool lu ko neex mu def ko ci nit mm-hmm. maa gisul kenn ay yii muy wax di taxawaaloo ay naan day dox yi day def ni xoolal nekkul ci loolu gis nga ambiance yi muy def ni su ko weesoo pare na ci nekkul ci dara kon boog yow soo fi bëggee ne naan ay di xeex di xuloo di gaje di ba pare ëlbatikuwaat ne lii lañ may de mais non quand même nañ wax di dëgg. Mhm. lebaluñ ko lii. moom na kersa wallahi lebalu la waa kër gee lebaluñ ko lii. Mhm. man de am naa ci kersa lool. Mhm. am naa ci kersa lool te lii mu def nii tey mënul xam conséquence mais suba lay comprendre si lu bëree bare bare bëri. man nag su ma sañoon dina jéem a toogaat mu xalaataat xam li mu bëgg gis nga tey nit dina ànd ak yow fekk lii nga yor la la iñaane nit dina la kole fekk li nga yor la la iñaane benn jour wax naa ko ne ko bisoo dafa ba ñàkk sëy bi gis nga ñi ngay àndal ñooy ñëw sëy sëy bi xamu ci dara nag day xale mooy li ma la wax léegi rek nag xale xamul dara lu ko lu ko neex fenn kese laa blâmer ay waa këram mooy que ni xale yaay kilifaam xale bu ndaw la yow yaay toog na ko mun naa nga ko lii ngay def mais ma muy ndaxte soo waxee mu ne non sëy yi mag njëkk ak léegi bokkuñ wala exemple bi man maa ngi ni tas naa 10 ans delluwaat ak moom loolu mooy exemple bu baax. moom bi. ndaxte mu ndaw sax toog ne muy wax loolu ne maa mi ngi nii man ko sa tasu bàjjen ngay wax sa tasu kii wax na woon yaa ngi dégg est-ce loolu mooy exemple ba baax saa yi ñit ñi ñaan nañ yàlla fooy sëy nga dee fa ñi ñaan nañ yàlla fooy sëy nga sëy fa bañ lay suul baa ngay suul yaa ngi dégg waaye naan ay noo tas naa dix ans tas naa li xale soo nekkee moom na nga koy ilif nga xam ne yaay kilifaam xale soo nekkee moom na nga koy téye nga xam ne ko hee sëyal sëy bi barki alaaji man man de lii sama doom man su ko defoon moom maa ngi moom duñ bokk benn kër jamais de la vie xalaatuma ko mhm. parce que xamul xamul lu koy gaañ suba lay comprendre lii da ko doon gaañ te man leer na ni nekk ma ci xolam waaye xam naa ni li na ko xam na ni fu mu nekk nii yàlla xam ne xol bi mi ngi kii parce que yow ni nga loo xam sax da ngay xam ne lii c'est faux parce que dëgg rek la yàlla bëgg moom dina xam ne lii muy def nii li mu mën a gancé yëpp pour affaire àdduna jaru ko parce que benn temps la Sénégal lañ ne may la suñ la six six mois un an moom mënoo ko am parce que ñeneen ñi ñëwaat nekkaat sa place te mënoo foo tool di génnee kaset di génne ay affaire rek di def nii pour ñi di la vie ak di la xool ay vie yi mooy lan yow say gën vie yow nga mën am doom yoo xam ni mën a indi ay vie toog <clears throat> yow bëggoo am doom déjà yow yaa ko bëggul parce que nit ku bëggul am ko xoolee man mii loolu lañ ma waxoon kon suñ ma ko waxee asamaa mag ku wax mag lii di nga wax rek lii mhm. waaw kon boog loolu muy dëgg dafa am loo xam ni yow yaay xam li nga bëgg nga xam li nga bëgg loo nekk nekk xale teewul nga am jom nga am jëkkër joo xam ne bañoon la dara te amul lenn lum lay néewal ci say problème amul lum lay néewal mu say yaay ju nekk Touba c'est pas parce que li tax ñoom tey exemple ma li tax man may xam loolu lu bari mooy dafay bëgg lu ma neex ba tey su defee dara ne ah tons man de lii wala man loolu dama sama fierté la moom xam na lu mu def rek ne neex na ma ci loolu lu mu leen defal man yàlla xam ne ni neex na ma du ma ci dellu benn yoon li may man li doon sama affaire kañ mooy ma ñëw mu fay def fu waaye di su boobaa dina am lu ma naqari loolu mm-hmm. mais lu mu fa def ci teranga man neex na ma. wax dëgg yàlla neex na ma. ndaxte mii nag li ma koy wax mooy na nekk nit. turandoo bi na ko dimbali muy ndaxte bu mag na ko jàppale mu xam ne gis nga fii adduna la te lépp day jeex adduna bi dafa yàggul dara da ngay gis xale bu ndaw suba ñu ne la suuli nañ ko dee na. kon boog fii dara ñor fi bañ koy màcc. nañ nekk nit te xool bu baax seen affaire duñ koy doxee. d'accord ndax bi li xewee euh, fi mu toll nii ngi jéem a trouver solution pour delluwaat ñaari xale yi. pour delluwaat ñaari xale yi waaw loolu ñu ngi ci xam nga loolu li ñu nekk ci li tax may la ñu ngi ci ñu ngi toog di xalaat man nekkuma fi woon man maa ngi ñëw man nee naa la euh, ni ma yenn woon affaire bi France nekkuma ko fii yéen xamu leen ci dara de waa France fee ñoo ci xam parce que li tax man xam na dama yor garage France. dañuy ba sama atelier di fa werante affaire bi. <laughs> billaay di werante am ñoo xam toog di saaga maa jor ko yóbbee du kee est ce que maay Mario moomu lebal na ndaxte may benn benn nit di ko saaga ak lim ko defal ci teranga ak lim ko defal ci lu baax. ak lu mu ko sagal ci biir mbokkam amul mbokkam lu mu leen defalul maaj lu mu xam ni ku ne bëgg naa ndaxte sax mu defal la benn affaire ci suuf lu kenn yëgul ku ne ndaxte lii moom koy deel wax lu ko neex moom mi ngi defal say affaire waaw mais léegi léegi lan mooy problème bi kon léegi ba muy toog di yàq di def yooyu li ngay wax ni nag tey jii maajoor ci boppam xëy na li mu bañ ma lii lii may def ni tey yëgu de ma ko mais dafa bëgg exemple ba tey jii jabaram tey su ma ko tàggoon ni ma def fee la may def moo tax tey damaa toog ba mu muñ heure bu ma toogee dégg benn affaire rek il faut ma génn wax. heure bu ma toogee dégg dara rek il faut ma génn il faut ma am envie pour wax. yàlla xam ne demoon naa ba ni dootuma ci wax mais na ma dem ba xam ni lii su ma ko waxul booy bi il faut ma setal ko ba mu set wicc parce que dafay logique booy bi li mu war a def ci ay mbokkam def na ko. li mu war a def ci si baayam oh, def na ko booy bi xoolal jàmbaar la ni ngay gis noonu mooy waral tey am na loo xam ne doom su ko defee yow. amul loo naan ko bi lu dul lu bon su ko liggéey def ni ko ne lii wala liggéey nag foofu dinaa fa ñëw mani la ñun ku judd sept ans mën naa la woon sama photo boo am sept ans maa ngi garage Maajoor moom nekk na sama empreinte man mm-hmm. man vacance dama ko doon jël di ko yóbbu atelier muy liggéey mm-hmm. ak lu mu mën a doon liggéey la ñu xam bu ñu nekkee xale ba bu ñu nekkee mag mm-hmm. lépp li gis ni dañuy liggéey nii nga xoolal amuñu samedi amuñu dimanche comme li ma la wax nii ba ci Europe gee ñu nekk amul ko ci am samedi amul ko ci am dimanche te defuñ dara nag lu naqar yàlla kon boog ku liggéey ba am sa xaalis lu la neex moom nga def soo ñëwee nag fekk sa baay liggéey la sa yaay liggéey la ñëpp ñuy ay jàmbaar nga ñëw liggéey yor yi nga war a yor defar yi nga war a defal mais <laughs> sa waay su nga bëgg dem bégee ji bégee ji yow yaa moom sa xaalis yaa ko liggéey du xaalis yu dërëmu kenn sa xaalis la yow mais lan te ba léegi ba fii Sénégal du def dara rek di ko boole ak ay wax man xam nga bëgguma wax sax nit ñi di ko catu parce que li mu war a def mi ngi koy def xoolal euh, soo demee yëmbal gi mu dëkk maanaam euh, teen ba fu mu dëkk lu fay lamb te du meer du dara dañu wax te dëgg moo tax ñi ñu naan dañoo xamul soo ñëwoon ko yem lu fa leer moo ko taal kan moo ko sant xanaa kon loolu Sambala risque dañ dañoo xam te dëgg lu fa leer moo ko def su ñëwee fekk fenn indoor mu dem jënd machine am ñëw indi lu mu def lu mu gis indi mais saa yi kooku loo ko mën a waxal loo ko mën a waxal lii ñuy wax naan day def lii day def la may la bàyyam ma ko dàq maye billaay wallaay taalaay baayam ku mu bokkal si ay mbokkam dimbali na la ku mu bokkal yaayam ñëw nag tabe ba maritaali yaa yaayam suy def dara du xalaat du xalaat kon su doomam ñëwee il faut mu def li mu def kon boog su ñuy wax naan ay samba allah rek ay sambali dañoo xamul lu muy def rek waaye man daal li mu nekk dëgg ba si Sénégal gii mi fii ay projet yoo xam ne mi ngi dox ko doxal jël ay exemple moromu nijaayam ak ay moromu baayam ak ay moromu moromam ñëpp leen dugal leen ci ay affaire yoo ay affaire boppam la te kenn xamu ko di lay ni ñu koy gérer waa léegi su liggéey am nekk xale bu ndaw yàlla defal ko macha allah moom ambition bi mais lan la ñuy def dañuy ñëw na ko hey bul def di te liggéey alalam mhm. da koy liggéey tey su fekkoon tey man li war si man def ko li war si baayam def moom ko ñëpp ñoo ñuy mhm. mais li mu war def lépp mi ngi koy def lan moo des mhm. lan moo des nekkul sàmba alaar nekkul lu muy regretté man nee naa la bugguma sax sori ci ay affaires yooyu parce que soo soree nga wax adduna bi yëpp xam ne mi ngi non du ma ci wax loolu parce que boobaa da ngay catu du ma nangu nag loolu nañ ko bàyyi moom mi ci yoonam moo liggéey xaalisam moo ko moom lu ko neex mën na koo def waaw loolu daal mooy affaire bi waaw d'accord Aïcha maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax d' accord euh, euh, euh, grand bi fi may ñëw mooy. Mm. ndaxte boo xoolee diiraa bi mu def seen kër. Mm. mat na neuf mois. donc loolu ci sëy ci lislaam day am loo xam ne nii lislaam da ko fay wax. Mm. te yow tamit ne nga sëy bi ba tey mu ngi am. ndax mën nga ñëw indilaat foofu ay leeral. waaw xam nga boobu dafa na am na boo xam maa ko jëli man mii maa ko jëli bi ma koy jëli dégg naa nag parce que bi mu toogee ci plateau bi man li li mu wax foofu laay wax moo tax li tax dama lay gën a confirmer dafa faux. gis nga bi ma ñëwee di jël si ndaxte woon na ma quatre fois ci yoon bi. ñu ko jël parce que waaw. parce que booba muy maa di trondoom laa njëkk a waxal bi may wax ak moom parce que nit xale suy sëy yow mi nekk moom yaa ciy jàpp parce que da lay sóoraale. Mm-hmm. parce que moom da ngay wax direct moom ñemewul ay waxi maa moom ndaxte bu ndaw day wax ne ñemewul ay waxi ndaxte bu mag. Mm-hmm. bon lu muy def lu ne da ko siy sóor. maa toog naa moom ne ko su xale bi su sëyam tase yaa ko tas man nëbb ma li may wax de man wax naa ko direct moom maa moom muy turandoo ndaxte bu mag ndaxte bu mag bi mu demee bi ma koy jëli boobu dama wax ak moom ba wax wax ji dëgër ba maa moom yëpp ku ne mer mu xeyaat mu woo ma dama sama goro kon nag maa mere nii man ko no parce que man it li tax ma ciy sonn mooy ñee samay naw lañ te am na foofu suñ fa toll ñoom duñ mën a def benn pas mooy comme li xew nii nii ni may waxee ñoom mënuñu def daara dara dara dara parce que maa nekk ci digg bi man damaa nekk foo xam ne ki ñoom ñu ngi may sóor bëgg ñu wax lu ma naqari bëgg ñu wax dara loo xam ne daf may xaw a euh, laal ba nga xam ne ku bëgg wax doo wax yaa ngi may dégg wax ji li may nekk fii yëpp xaw ma lu ma lu fii yëpp mais comme que si liggéey jàmbur laa ne mënumaa bëgg a boole liggéey boobu di ko booleeg li nekk fii man ni tontu du bu ma ñëwee li ma war a wax dinaa ko wax bi ma maa waxee bañ waxante maa bi may débat di ko jëli fekk ma fa ndaxte de ndaxte bu mu ndaw laa fa fekk fekk ma bu mag parce que dama ko woo mu ne ma dafa dem Thiès bi ma ñëwee mun na ma papa mi ngi fa mooy jëkkëram ma dem avant may egg fekk avant jour boobu defe naa dafa tombé dimanche samedi bi sama atelier bu lakk euh, bu nekk Kër Massar lakk bon comme ñun fan lañ fanaan daanaka ci guddi gi bi ma xëyee war a dem jëli kee daanaka xaw naa duré ci yoon bi parce que maa ngi woon ci affaire yi kii bëgg naa ñëw ba kii woo na ma ñaar ba ñett yoon yoo xam ne donc foo toolu foo toll maa ko maa ngi ñëw maa ngi kon boog moom su toogee plateau naan nee naa nijaayam bi may jël si ma ne maa ngi dem maa ngi ñëw mooy waral mooy gën a dëggal foo bi muy wax ndaxte dafa foo te nit ku foo billahi moo gën a moo gën a jaral a ragal ci àdduna parce que man en personne jëkkër ji nag moom gisul foo gisul dara ci moom. moom pour moom ndax daa gën ci àdduna ba tey jii may wax yow tey la gën a bëgg gaa ay gorom tey lañ ko gën a bëgg songe ba tey jii tey la gën a bëgg ndaw si mari yëpp tey la gën a bëgg ndaw si ak malgré lu mu wax yëpp ñoom mën nañ ko koo jéggal moom moo ci des mhm. waaye man maay wax man en tant que di nijaayu kële en tant que di euh, euh, jëkkëru magu kii mooy man si ñaari yëpp laa bokk. kon boog du ma ci yàq kenn pour intérêt kenn li ma la waxoon léegi laa lay waxaat maa tey su ñëwaatoon def sens comme bi ndaxte def def pour gi man maay ëlbatiku face jàkkaarloo ak moom. parce que tey nit ku dee ak sa bàmmeel. te lii ma lay wax wallahi barke Alxuraan dara dañ nii la situation bi demee. ndaxte lii mu def yëpp moom mi ngi ko tuddee lu muy togg parce que dafa am euh, ay message écrit yoo moom bu ci boppam moo ko def. moom ndaxte. moom xam nga su dee banaan man xam naa ni muy tata mari ak Mario mérité wuñ lii ma leen defal lépp lu mu mës a bëgg defal na ma ko di wax mel ni comme quoi di yow yaa toogoon fii ak Sénégal yëpp wax li ngay wax te mu wax la benn affaire bu ndaw xam nga loolu kañ la ko wax le quinze mai du le 21 mai la def affaire am bi. le quinze mai la la def lii. loolu su la neexee léegi dinaa la ko wan léegi nga nga nga lire. donc message bi jiitu na émission bi. waaw parce que le le 15 ak le 25. Mhm. kon le 15 ak le 25 même su ko jiitee yow fekk na nga programme sa programme ba pare. Mhm. parce que ci biir message bi mi ngi naan mais c'est trop tard damay togg li may togg ba pare. soo foogee nag mën ngaa togg li ngay togg ba pare nekk sa ay caaxaan ba pare bëgg ñëwaat bëgg a teg nit ñi dof nit ñi duñ dof. message la ko envoyé. mani man ñoom su leen neexee nag nañ nangu su la neexee ñoom ñooñu bëgg seen bëggante bi nañ bëgg waaye man mi doxoon si diggante bi man sama tànk bi dootul tege ci loolu am naa droit bi ay goroom nag lañ ko gën a bëgg. moom jëkkëram tey la ko gën a bëgg sëy bi ba tey tas amul ba tey jii may wax ak yow tas amul te tey xam nga di tax sax affaire ndax di gën a garaaw lu bari parce que suy gëmloo ñee danaa gëm loo ne lu may bugguma ñee xam ko comme tey suy defee benn erreur wala mu def benn affaire mari ne xaaral moo sa bàjjen da ngay saraxu toog ci ay tànkam na ko bugguma ñu xamal ma dara hmm. ci defee ay bêtises mel ni comme ku kii mais finalement après nañ koy yërëm luñ ne nii rek papa yi marione moom da koo yërëm nañ ko jàppale. da koo yërëm nañ ko jàppale mais pour lan nga jugee fa ba pare li ma gën a gën a gën a naqari bi muy ñëw di ñaan si bar ndaxte amul benn mbokkam bi mu àndal. Hmm. de man bi ma woo dama ne maa daf ma woo ne waaw ñoom papa ngi noonu dem man ko wax baax na maa ngi dem toog fi ma toog amul benn. ay seen am na ay mbokk am na ay mais kenn demul kenn ki jëkkëru magu maa la benn bàjjanam moo ci dem ku juróon sa doom mu ne damay dem ñaani baat amul dara loo mën a régler lu ànd ak moom jiite ko naa ko dem ngeen koo jurul ci juróon sa bon sa doom doo ko def amul kenn du ay baayam du ay nijaayam du kenn ku àndal amul kenn ku ci ànd fay boobu nag amul kenn ku ci ànd sax si lii mu def nii tey parce que am na ñoo xam man jokkoon naa ak ñoom man boo nekkee France ñoom am na foo xam ne jam nañ ma nag parce que nee nañ boobu ba léegi woowu ma leen waxuma ci boobu ba léegi gisu fa benn mbokkam kon boobu ngeen ma waroon woo parce que seen kilifa ma nangul ko loolu. Mm-hmm. loolu man waroon naa ko def. Mm-hmm. biñ ko woowee ne ko ñëwal ñaan baat dafa ne ñëwuma ñu yónnee ko mu ne delloo delloo leen seen xaalis ne dew ma ñaanuma baat lu ma fekkee fi ñuy tasee mm-hmm. responsable xale boo xam ne xamul dara yow yaay ñëw nga toog mais soo jiitee foog ni lii mu def nii mën na yor àddunaam nañu dem nañ dem. dafa am loo xam ne kenn du ko caaxaanee. mbirum sëy kenn du ko caaxaan nit ko ne ñaan na yàlla toog ba sëy ay moromam ñi ngay gis fii ñuy sëy ñu ko gën a tuuti du gérer seen sëy du gérer kër complet yow kër goo xam ne kenn nekk fa kër ga parfois ñëpp dem Italie yow ak jànk yaa fay ak benn nit ñaar waaw loolu lu fa metti goo xam ne fariwoo mat kër goo xam ne jëndloo la gaz kër goo xam ne joxewuñu la dépense ndugg sax dañ la koy ndax da su demoon marché ba kenn xamu ko fa su demoon marché ba eh gorom mooy taal oto benn jour la ko gorom ne nañ dem pour nga miin affaire yi ak moom taal ñu taal oto dem loolu ndugg la nañ waxante dëgg eh xam nga lu tax loolu parce que mooy li ma lay wax nii rek man constant sama sëriñ da doon def su amee dara lu ko naka daf may woo su ma woowee ma woo ndaxte moom finalement ma ne ko mari mu a ma ko wool ndaxte mhm. woo ko moom it du bëgg a def erreur wala mu bëgg def dara man ma gisee ko dara wala mu metti ma mooy dañ koy naxante di ko raay di ko këti ndaw si nag moom it def ay bêtisam xoolal maa ngi dégg mu ne euh, mu ne waaw ma ka jaayal te <laughs> man boobu la am loo métti te boobu man mii benn jour rek dañuy mari fekk muy jaay xam nga suy jaay man dama koy envoyé ay kii ay kii yooyu ñuy def noonu ay kër ay demee noonu mm. man ko mari ana ndaxte pourtant mun nga ko xëcc mu lay jaayal ngeen di jaay affaire yi demee parce que loolu yëpp pour li tax ma ko doon wax pour ñoom ñu suudee wu ànd xam nga affaire ma Modou soo ko ñëwee di ko jaayal ñooy da ngay profité te xool bi mu dafa ne maa koy jaayal benn yoon la Moussa toog mari di jaay mu ñëw toog ci wax ay li muy wax mais xoolal lool sos yooyu mu sos naan maa xam nga maa ko doon jaay mel ni yow yàlloon yenn affaire di jaay dafa am loo xam ne ki jaaduwul rafetul hmm. nit na ngay nite yow nit déjà li la say goro defal wallaahi yàggoo fa de mais mënoo leen ko fay ci àdduna. Mhm. parce que sagal nañ la suturaal nañ la. musoo gis mariage ñu jël indi ko fii nee naa la lii ma lay wax lii Marie Diop muñ su ko toogoon fii wax man mii moom du ci egg man nag li ma la wax nii mooy man li ma dund ak ñoom waaye ñoom li ñu dund wallaahi duñ leen ko wax. lu ñu dund ñoom duñ leen ko wax ci àdduna parce que du référence sax ci xale boo xam dafa war a ëllëg di ko gis moom ni muy doxee. Mhm. du référence topp ay affaire showbiz topp ay affaire yu kenn xamul ban sens am na ñu gérer seen say gérer seen say showbiz te yow sa jëkkër lii nga nekk nii tey moom topp na li la bëgg ba lépp commandé loon na ko lépp lépp lépp lépp euh, maison de. Euh, production waa production bi yëpp préparé woon na ko ba lépp tegal la te yëpp yow yaa ko ci dugaloon su doon moom moom moom du musique euh, musique wul feccul tegul. lépp yow yaa ko ci dugaloon suy dem soirée yii muy ne xamante yëpp yaa leen ko xamleel su loolu yow maaj lu muy xam mooy dem Italie ñëw liggéey daana dem di ñëw te mu xamul xamul loolu yëpp kon su demee loolu nga dugg ci ba pare ko tasaat dëkk naan parce que ñit ñu ngi koy gis ci soirée yi muy baale na baatre na def muy def noonu tey moom moo ko liggéey mu lew ko dom du xaalis dërëmu kenn moom moo ko moom waaw te li mu war a def nag def na lu jiitu loolu ba pare doog ñëw di def loolu de xale la na da cee toll mënul continuer loolu day taxaw waaye nag toll na ci da koy def moo ko liggéey moom moom xaalisam mooy ñàkk mooy def lu muy def waaw. d'accord ay mu ngi noonu xam naa ni maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax. ndax wax mm-hmm. dëgg yàlla. Mm-hmm. xeeboo ma benn yoon. dëgg la ñoo ko parce que tey mm-hmm. lii exclusivité la. mais dama gis euh, coono yi ñu ci daj. pour bëgg man euh, euh, nga waxee ci man. la parce que nekk nga Europe. ba dagg bee ba ñëw man wax waxtaanu nañ ci. la ba ñu woon aéroport sax. lañ koy defee. ku ne soxla la ci nga bañ. ni guy gi sama booy la. maa ko yar. tey li nga wax sànq. mën naa cee firnde. parce que ñun ñi yaakaar naa bi ñuy doon ay xale di dugg ci affaire làmb. ay moteur daan ñëw faaw mën na maa faaw na maa seede dëgg la fii lañ daan ñëw di jël ay moto rek kenn mm. xamul dëgg la mosuñ cee laaj dërëm dëgg la loolu moom wax dëgg yàlla mm. man mën naa koo seede dëgg la kañ donc maa ngi lay jaajëfal mm. euh, mot di sant yàlla rek di euh, li ma jaaxal mooy sama jaraat dafa bëgg su yàlla ne dinañ ànd munuma ci dara keneen munu ci dara ku ci jéemit yaay mu jurus su yàlla defee dinañ àndaat kenn munu ci dara te ba léegi xëy na am naa lu ma naqari nag mais tey su nekkoon ma xam ne parce que nit yi de juum nit dina def lu rëy rëy yàlla jéggal ko kon boog tey mun naa juum su paree moom pour ñëw kenn du ko tëjal dara te it fi ma woon démb ak moom te moom xam na ni man dama see sonn moom ndax si boppam wala mu ñoom rek dinañ def benn xalaat ne mais man li tax ma ciy sonn man lan la te yàlla xam ne joxuñu ma ci dërëm gisuma ci dërëm man maa ngi liggéey mais dama ciy sonn parce que tey sëy la te yàllaa ko bëgg ñaari xale yi ànd mag ñoo ciy jàpp tey man rek wax ma ay yaayam ak papaam yi Mario de mais man li ma si jàppee rek su ko waa ñu ndax rek kenn kenn jàppee woon noonu wallaahi sëy bi kenn munu ci dara. kenn munu ci dara parce que xale lu ko neex la xam xamul lu li war a neex xale xamu ko li ko neex kot la xam su koy reyee su koy def yëpp moom loolu la xam kon boog dañuy ñeen sant yàlla di xamal ne daal dégg nañ. su leen yàlla waree boole yàlla nekk lu gën si ñoom ñu kon ne àndaat di leen wan ni sëy bi moom tasul fu mu ne nii tey su juxoo amoon du lu ñuy takkaat day dem sëy direct dem këram pour mu leer si nit ñi parce que ñu bëri ñu ngi laajte mais sëy bi tas xaajul bay tas sëy bi tasul tey tasul ëllëg tas moom amul waaw tas moom amul fenn ci si sëy bi amul tas amul may baat amugu fi waaw loolu pour mu clair léegi comme moom moo de la fin bi Euh, di jéggalu nag euh, ñëpp euh, li tax mooy que ni affaire bi delloo na fenn Sénégal waxuma sax Sénégal mais àdduna bi yëpp ah amul fooy dem xoolal amul fooy dem te doo dégg lii lu ci wax nee naa la man nekk naa France ay nit may liggéey ay sénégalais ñëw ba sama athlète toog ñuy wax ma dégg ñaar ñu ngi werante ci affaire bi. di ci wax di ci wax di ci wax di te xamuñ ku ñuy waxal mooy ndey mi li leen liggéeyal maa ngi leen liggéeyal te ngi werante ci sama affaire jarba <laughs> di wax ay détails kii di saaga euh, Mario fi n'importe quoi mm-hmm. yàlla xam na ko léegi di la euh, di jégalu nag adduna bi yëpp mm-hmm. di leen xamal ni euh, fekkee dama lii ma wax nit kese laa su ma juumee maa ngi ñaan ngeen jéggal ma ko di xam ni dara nag taxul ma wax lu dul leeral ak sama diggante ak yàlla moo tax ma dugg ci moo tax ma wax mais sinon aw ma sax jotu ay wax nii. defe naa c'est la première fois man ma mus a toog man ma man ma wax ci. man lépp lu may wax ci lii sax sama côté liggéey lay ñëw. Hmm. man ma wax ci mais lii dafay loo xam ne tey su ma dee woon te waxuma ko yàlla xam ne dinaa ko lay ak yàlla. Hmm. parce que sama diggante ak yàlla nag laa waxee waxuma pour far fii waxuma pour far fii damaa wax li nga xam ne moom lu ñu dund la. Hmm. man ak li ma dund ak ñoom. maa ngi jéggalu ñëpp di baalu ñëpp. baal naa ñëpp dama ñëpp baal. waaw mm-hmm. ah, jërëjëf. Aïcha mu ngi noonu ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox di daje suñu yeneen émission fii ci people 221 jërë ngeen jëf.